daaru xudduus gépp euh, bu ñu qui ziar bi tek ko ci leer ne dana matalé biir gep mhm. ziar baax kër ci euh, Cheikh Fatma mhm. ziar baax Abdou khar mi nga mhm. mi nga euh, ci buntu Cheikh di ziar Madina di Bombali mi nga xamante ne moom doon duppee euh, suñ gaawaan mhm. noo ngi ñaan suñu borom euh, dolli euh, aw fanam ci barke Sëñ Tuba ak mhm. njabootu mbooleem ba Madina gépp ak Bombaali gépp noo ngi koy ziar bu ñu ko tuddee su mhm. ziar baax waa kër suñu xaarim suñu Aliou mbooleem suñu Ahmad Mbàkke tundoo bi noo ngi baax

réaliser émission bi sëñ Moustapha Seck mooy suñu ci kanam dinaa insister ne sëñ Moustapha mi ngi ci télé bi moo ñu réaliser suñu émission ak sëñ Babacar Diop tamit Babacar Diop waaw ah, moom ñoo ngi koy ziar bu baax ah, ah, baax a baax di waa télé yëpp àq nag sëñ Moustapha Baye Cheikh Balla Samb nag mu ngi ko ci loxoom mu séddale ñu ko mboolem télévision jërëjëf sëñ Mamor kon dañuy bàyyi rek euh, sëñ Moustapha mu nuyoo ak euh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog moom di ko seetaan ci euh, tey ni ñu fas yéenee ànd ak moom ci dundug Cheikh Mouhamadoul Moustapha euh, dund gi nag tubaarkàlla lu yaatu la euh, bu ñu nee dundam daanako doy na sëkk kon dañ lay bàyyi rek nga nuyoo incha allahu rabbi sëñ alaaji nuyoo ñu daal di tàbbi ci waxtaan bi jërëjëf sëñ Mamour وعلى آله وصحبه ذوي البال والتمكين مبوكي جلدي راوتنا مبوكي طالبي نيوغ لين نيو تدي لين زياري تجيتال سي نيو بي شيخ محمد المنتقى في نكال خادم الرسول دي نيان سون بوروم غودلا فانام ويرال اي كيرم دي نيو شيخ احمد المختار ميغا خامني ماي خلفه في شيخ مصطفى يا خلفه في دار الخدوس ak buy mbind di nuyu mboolem njabotu borom tuba gep di nuyu julit ñep di len ndokkel ci bis bi di ashura di bis bu mag bu sunu borom fonk ngir lam wuntu eh, di ndokkel jullit yep nak ci aduna si di ñaan sunu borom gëna degeural l'islam gën ñoo aar ci noni biir ak noni biti eh, kon lii nga xam ne ñoo ngi ciy waaja euh, junju itam ñaan suñ borom barkeel lu ñu lépp luñ fi wax te fay ñu yool bi euh, wasaare ko jullit ñi te laqal ñu ko fa yàq yegut Cheikh Moussa nag wax ci moom yomb na yombut waaye euh, danañ fi fàttali nit ñi li nga xam ne bii xewoon na jamono ci circonstances yu jafe-jafe euh, mu am cag mat taxawaay ba ca war nga xam ne mënees na ne pacte la jaayantal bu mu defoon ak borom Tuubaa ko ne woon condition yi ma la wax su ma yéegee boo ko defee nii ma la ko waxee fa ngeen bëgg yoon wi yegg fa dina fa yegg su ngeen ko defut naa jël sama mbóot bàyyi leen seenu yoon kon defe naan tey jii su fekkee ne ñi ngi tala màggal mm-hmm. di tala gàmmu di tala doon def lu mën a ci lislaam fii ci biir réew mi ak bitim réew mm-hmm. mel na ni am na cëb cër kon nag eh, yàlla nañu ci yàlla fayal ya ak mboolem rakkam yi ya njaboot borom taa gépp ya jërëjëf xam naa ñu sant bu baax sëriñ bi ci eh, nuyoo bu am solo boobu nga xam ne nuyoo na ko bàyyi sëñ alaaji moom tamit nuyoo mbokk yi jàkkaar ba moom bisimilah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 ci jataay bi teg ko ci loxob Cheikh Mouhamadou saa Mbacke mi su ko defee mooy yóbbaale si Moussa kan suñ Maamoor ñu ngi lay siyaare bu baax a baax yaa ngi ñu nga seqal liggéey bi ñëpp rek moo xam ñu ne ci machine bi la wala caméra yi lu mu ci mën a doon di siyaare bu baax a baax si Sylla Diop mi ñu àndal moom it te mu gungi ñu ak waa kër gi ñëpp rek di siyaare tam mboolem ñu bokkal Serigne Mbacke Madina jël seenu siyaare teg ko ci loxob sama buntu ca kër ga muy sëriñ da Abdourahmane Mbakke moom sëriñ Mbakke Madina xam naa kon di yamale fofu kaddu yi rek ba mu dellu siwaat insha allahu taala di ñaan yalla suñu borom ñu def ko yoon yu bare bare bare bare barka Cheikh Khadim jërëjëf euh, sëñ Alaaji ci nuyoo matale bi xamna euh, dañuy daldi djublu ci li nga xamanteni moy mooy euh, waxtaan bi ndax niñ ko waxe léegi rek mamour euh tey nag xam naa euh, question yi dinaa am yoo xam ni dama lay bàyyi yow directement nga di ko posé sëriñ bi ndax euh, li mu wax léegi rek ci nuyoo ab nuyoom ci ki nga xam ni mooy Cheikh Mamadou Moustapha nga xam ni ku toll ni sëñ Tuubaa bi mu liggéeyee ab liggéeyam ba liggéey bi mat mu war a dem ci suñu borom kim fii bàyyi mu di ko wutu kooku war nañoo xam ni ku mat sëkk la ko yàlla di def waaye ci biir loolu mu réaliser fi lu am solo waaye avant réalisation boobu ak yooyu am na yeneen yu xew yoo xamante ni euh, ci demuk sëriñ bi jóge gi sëriñ bi jóge njaarim ñëw Touba ak yooyu yëpp tey jii dañoo bëgg murit yi euh, concentré wu ci déglu ko bu baax a baax xam ni dañoo invité koo xamante ni sunub sëriñ la bokk ci njabootu Cheikh Mamadou Moustapha waaye di wax loo xam ne ku ko déglu dina la jariñ te loolu rek mooy li am solo waaye loolu dama koy dama lay bàyyeeg sëriñ bi ci question yi nga xamante ni incha allah moom lañ fas yéene émission bi démarré ci question yooyu sëñ Mamour. jërëjëf sëñ Moustapha. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Alaaji Seck. Mm-hmm. moom émission bi rek tax mu jóge Touba ñëw tey. na mm-hmm. nga koy masawu coono bu baax a baax waaye sëñ Touba jaral na ko. Eh, ndeysaan maa ngi fàttaliku. Eh, dem nañ ànd Gabon. ànd nañ tukki ni ñu àndee woon ak sëñ Moustapha rek. Côte eh, noonu lañ àndee woon ak moom dem Gabon. waaye sëñ Moustapha dañuy ñëw rapidement. sëñ bi. ku toll ni Serigne Touba li mu liggéey ak fi tubaab yi jaar ak moom lenn rek dañ bëggoon ci jëmmam mooy fexe ba. sànq ko bëggoon am na ci moom ba nekkatu àdduna. Hmm. mu dal def li mu def lépp ba ñëw njaariñ naal fa juma taxawu taalibe yi samp seex si ba ñëpp dëgër mu war a dem ci 19 1927 bis booba la ca am ak la ca xew xew-xew ak taxawaayu Cheikh Moustapha ak mag ña nga fa nekkoon loolu tey bu ko doon indil tey fan ngay tàmbalee ba taalibe yi mën cee nàmpatalu dëgg-dëgg. li li nga xam ne mooy source bu leer génn ci ba nu mën a dugg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci li nga xam ne mooy waxtaan bi jërëjëf di dellu. di nuyu waat te ziar ñëpp euh, sëriñ bi euh, ñun ñëpp xam nañu ne fi mu jaar ak tubaab yi bu pexey tubaab yi sotti woon euh, du dellu si njaareem waxuma laak di dem Touba loolu moom bind na ko bindati ko bindati ko faaw nag ñu fàttali nit ñi mbindi sëriñ bi ci boppam ngir ñu xam ne lañuy wax du lu ñuy sos duy gént sëriñ Tuubaa moo ko bind nattu bañ mujjeen teg sëriñ bi ci géej gi muy fetal ga ñëpp ñëpp xam nañ ko ko doon waññi bi muy waññi mhm. tàmbalee juróom ba dara ñu waroon soqi lañ yor ci bal ñoom fukk ñooñu ak ñaar ci sëriñ bi ahlu badar feeñu wàcc dafa am nag foofu ñaari xissa yu ci yu ci am ñii dañu ne fetal yi dafa wëlbatiku euh, jëm ca ñooña rey leen euh, man ci suñu gëstu diggante sëriñ Moussa Lo ak sëriñ Mouhamadul Xayri Jaxate mhm. nga xam ne nee na sëriñ bee ko nettali moo ko nettali baayam baayam nettali ko ko mu nettali ma ko dafa ne version bi bi mu gën a sukkandiku daal moom mooy ba dara wàcc walla ñoo ñoo ñoo wuññi kiiraay dox digg seen digganteek soldaar si ñoom ñoo ñee ñu ne ñu taxaw rafetuñu di xoole di xoole ba ko doon wàññi suñ borom joxaat ko sago mu raam ñëw ci sëriñ bi ne ko tin ñu dox suñu digënté ak li ñuy gis sëriñ bi ne ko kon da ngeen di yaxal ne da ngeen di yaxal ne manam da ngeen di sëñe ne bis ni ki tay dootu leen juk jëm si ci man ngir bëgg jël sama bakkan ndax suñu borom nangut loolu tuba ba ne ko nangu nanu mu yaxal ko sëriñ bi def ab kutumbal ci dama ko sëñ mom momu du xëy jaxat net léegi def ab kutumbal moy ab cercle tomb ci digg ba ne tombe bi moy l'islam cercle bi moy man mi man mi may ñag bi may ñag bu l'islam lolé itam da ko bind wax ni waxabalil wahab fi sulasa ma yahjul anchata wa salasa lolou xam nañ ko wa ma ma info na sa fam ko sufil ardi la ko sëñ bi tënkee kon lolou lu leer la sëñ bi ko bidal boppam sëñ bi nak day liar mindi señ bi da koy liar bo bo kam ni alquran di liyaare mbindam Euh, manam dafa mel ni na wax fi lay firi beyt wi ne ci weneen qasida lolou day faral di am kon non la sëñ bi bindé waaye bo day jang dong wax né ana lu bi jublu ci li euh, fuk ñooñu ak ñet ñoy ñan gatché gi moy lan do dem xaw nga xam histoire ba mën a ci contexte historique ba ngir mën gindiku wa kon lolou la bi mujjé bi yi cib bo set lo lol ba nit ñëwé juróom ben wër yi señ bi def wala luko luko luñ toll tuuti même bi mbaaxaan ñëwé ba dellu ñoom jëmi tubaab bi seen bop ñom jëmatu ñoo jógaat ñëw ci señ bi deug la defoon nañ préparation ne dañuy guerre préparer vingt mille balles comme noonu ko euh, archives yi indee te ñëpp yor nañ ko ne moom lañu war a sotti sëñ bi général Houry moo waroon a jiite détachement militaire boobu ñëw daaru mën naan ginnaaw bu mbaaxaan ñëwee. Mm. sëñ bi am wutoon ndigal ngir jóg. loola di wëy di wëy di wëy ba mu am ndigal jóg ànd ak ndawul Cheikh Sidiye dem. gouver dem gouvernance ndar. Mm. passage bi lu jar di wax la. Mm. muy ba mu yegg si ba ba mu ne yulub gouvernance dafa fekk Merlin. ak tubaab yi def salut au drapeau français.

sëñ bi joxal bi ko nee ko ne ko bu dee xiirtal na ma xool seen sagar woow yi mën naa koo xool waaye su ma ko xoolee bis ni ki tey naa digal sama borom déglul baat bi naa digal sama borom nguuru tugal fépp fu mu am baat dina fa wàcc ba laa yu mu diin dootu ko su ma bàyyi sama sagum bañ koo xool nag dinaa bàyyi dogal ba bii ak sama borom ba saa su ko soobee na tànt ñaar yooyu lu ko ci neex ma def ko mu wax ko Merlin Merlin ne ko nekk na ko bàyyi bu mu ko xool kon tubaab yi xamoon nañ ay mbir ci sëñ bi waaw loolu la soog a wéy damay wax lii ngir jëm si ci dem gi ndax bëggoon nañ mu dem ay yoon te demut ba sëñ bi dem gànnaar ñëw ci yeen jolof ñëw njaareem ba mu ñëwee njaareem ca fan yu njëkk yooyee la ko sama salam ñëw def ak moom ñetti fan ca baytarasul gi ci njaareem ci kër gu mag fukki fan ak juróom la fa def ba mu génnee sëñ bindu kayit jox ko suma juumul sëñ Aliou Cissé wala sëy ne ko bis boo ma déggee Touba na ko tekkee na na na nga xool kayit wi kayit boobu bind ci dinaa def tuubaa dinaa def njaarim fukki at ak juróom ngir bis bu ne ci Rasulaay ngan gi magane defal na ma ko am at ba sëñ boobee déggee sëriñ bi Touba la ko tekki gis mbind moom yi mm. dem gi nag mm. fukki fukki faut ak juróom yooyu toi yi dem nañ ba koy ne ñu dara yaay jiite lii la nañu bëgg ko caa dugal waaye sëñ moom day gàndal ne ko ñu dara su fekkee dara kon mën nañ ko bàyyi ci liberté en résidence surveillée lay ne nar lu tax ak loolu euh, moo ci ne te sëñ bi ci diggante boobu yi yu bari xew na fii waaye ànd nag Cheikh Moussa dem wuy ji gouverneur commandant de cercle commandant cercle moo fa nekkoon commandant cercle di wax dugg seen protocole yi tàmbali wax sëñ mel ni wax ci da koy tàngal ndax moom boo waxee ci lu dul yàlla rek daanaka day daal di euh, gis na euh, jamono ji mi ngi dem te moom day njëkkante ak jamono jóg bëgg dem dem Cheikh Moussa jàpp la fa mi bi ko sëñ Tuubaa toog kon kooku jox na ko cër nettali bii bu ngeen duggee ci YouTube bi Cheikh Moussa moom sëñ Saaliwu nettali na ko jamono yi sëñ Xaadim moom Cheikh Moussa waaw kon joxoon na ko cër sëñ Modou kuy gën a ragal sëñ Tuubaa rek moo la ko gën a ragal ku koy rek moo la ko gën a weeg moom mi dem ba ne li ma gisagul te mu wax ma ko laa gën a gëm ci li ma gis waaw kon noonu jëmmi dem gi moom sëñ bi waajal na ko xam na ko xam na ni tubaab yi lii lañ bëgg bi nga xamee ne wax na ak sëriñ bi benn ci xisayit soxna may nekk li ma ko man te nit ñi am ci ak réer ci dégg ak dégg dafa jabe soxna may def ma ne euh, Cheikh Moussa daal moom li def moom matal na lépp ndax ne newoon na euh, indil raay bi defal jumaa ji te bu ko ab tubaab tiim bu ko ab tubaab tiim joojee la nit ñi runge tiim nga mooy jan jëmmi tiim lay wax ndax woo commandant de cercle mu ñëw constaté ne jëmmi aadama yu gi nekkatu fi wala beneen tiim la sëñ bi wax beneen tiim boobee la sëñ bi wax ndax xam nañ ne euh, Paal ñëwoon na fa commandant de cercle gis jëmmi sëriñ bi loolu lépp am na ci waaye tubaab yi lam doon nar ngir téye ko fa fukki fukki at ak juróom mooy bu demee bu jëmm ji yéegee ñu jël ko yóbbu tugal def ay test scientifique ci moom mooy tiim bi sëñ ab néew boo ko tiimee da nga ay test scientifique ci moom tiim googee la sëñ bi wax nit ñi dañuy ruungee wax bi tiim googee la sëñ bi wax te tiim googee waaw sëñ bi juñu na ko ci ci bayit mhm. akramani bila xuruji badani min watani bi na fi ahli madani loolu sëñ bi wax na ko teral nga ma ci sama jëm ji nga xam ne du génn di jariñ ñeneen ñooñ ñooñ ñooñ waa tax yi maanaa kon kon loolu euh, akramani bila xuruji badani kon nga xam daanaka téye ngir mu dem njël jëm ji yóbbu la woon waaye du ngir indi ko njaareem du ngir ngir naan commerce bi dafa kii déedéet déet mm-hmm. tu euh, nañ def pharaon ñu koy seetaan di ko seetaan nit ñi ñëw di visité loolu lañ bëggoon def sëriñ bi te la nga xamee ne bii moo leen gën a jaaxal dëgg dëgg dëgg mooy mboolem luy tentative d'assassinat bu amoon sëñ bi génn ci moom jaaxal na leen ndax lañ ku njëkk a def ba mu mooy jël jëmm ji suul jël jëmmam suul lañ def bi mu ne cëpp gabam 1895 lañ li ko def mooy jël jëmm ji suul gas ko suul lañ def te sëñ bind na ko radama rabi ma aduwiya xafar li darari wasaanani yaani nafar waaw kon suñ borom sullil na ma ca pax moomee nga xam ne noonu defoon nañ ko ngir lor ma kon loolu leer la kon tiim nga soxna may di wax te sëriñ boo xam ko Cheikh Moussa mooy tiimu jël jëmm ji yóbbu tugal def ay test scientifique ci moom tiim googu la sëñ bi wax moo tax nit ñi di runge naan tubaab bi gis na ko te sëñ bi waxoon na di déedéet déedéet jël jëmm ji yóbbu mm, mm, suñuy nopp jël jëlal mu sàmbàkke di xaar fii xool yax yi fii def nii nangam nangam nangam loolu la sëñ bi wax googu googu tiim la sëñ bi wax moo tax tey tiim googu yi ñaanoon na ko mooy béy bi ma la wax ne akramani bila xuruji badani min watani mi na fi ahli muduni loolu lu leer la kon sëñ bi xamoon na ne ñoom bëgg nañ koo jël yóbbu tugal waaw kon bi nga xamee loolu am na mu yéeg ci li ñu jàpp ci takk ci fukki fan ak juróom-ñeent ci muharram dugg këram ca ñaar fukkeelu fan muy màggal gi lu tax ñu jàpp ne fukki fan ak juróom-ñeent la mooy sëñ bi daa daa daa toppanteeg fukk ak juróom-ñeent yooyu ba ci Cheikh Moussa rek euh, naal bi mu naal ji jumaa ji ni mu ko rëddee nii da nga ciy gis fukk maanaam uróo fi basma la ni mu ni mu ànd bi mën naa ci dugg bu gaaw gaaw xam nga boo seetloo sëñ bëggoon naa génn dem ci géej gi ci ñeenti fan ya loolu la loolu sax la bind ci sa shakur waatuur jaaba loolu la bind bu bind ci bayit ne génn na ci ñeenti fan ci weeru safar moom mooy intention ba mu bëggoon a génn sama salam ñëw ne ko des na ba ca mu tegaat ci ñaari ay bis fan ak juróom-ñett mu soog a génn ca ajjuma ji ca guddi la sama salaam ñëw ne ko demal te bu ragal dara mu bind nag xasbunallaahu wa ni'mal wakiil xasbunallaahu wa ni'mal wakiil boobu yi boo seetloo uróof yi xamitu man yax si mu ne daral ji fukki uróof ak juróom-ñeent fukki bayit ak juróom-ñeent la muy uróof basma la mu dajeek tubaab bi jeewal fukki fan ak juróom-ñett ci tàkkusaan loolu la bind buñ jëlee tàkkusaan ba noppi ñooñu bëgg ko bëgg ànd rek moom ne ko faaw nga dem Leclerc menacé tiire ci kaw. Mm-hmm. ahlu badar euh, yëngatu. Mm-hmm. mais génn wuñ jëm yi contrairement nattu bu mujj bi nga xam ne dañoo génn seen i jëm. am na lu xew ba Leclerc dellu. Mm-hmm. loolu la Leclerc bind ci rapport ne ca le le jour suivant. dañoo dellu jeewal. kon lu tax jour bu njëkk muy le 18 safar. jëlul kii nga xam ne dafa waroon doon prisonnier. yóbbu ko. waaye sëñ bi gàntal na dem ci fukk ak juróom-ñett fukkeel ba ak juróom-ñeent lay dem muy 19 bi moo ñëwaat te bi maam Thierno njëkkee ñëw lëkk-lëkk jox ko ultimatum maam Thierno di wax daf ko ne Thierno dara matumaa wax ndax ba ngay waxanteeg ndaw loolee xorondoom yi dox ci sa waq yi nga koy fas maa ngi jàkkaarloo loolu ñoom lu tax sëriñ bi di jël xorondoom témoin te jël Birane jaw wala keneen interprète bi wala keneen xorondom dafa am signification parce que surtout nam la dafa am nam la ca la benn bisimilah maa dañ nga xam ne gii nekkul ca taw ba ñëw ci nam la innahu min suleymaan wa innahu bismillahi rahmaani rahim kon sëñ bi dafa am rapport ak la moo tax ñu defe ne 19 muharram ci la yéeg ci la ci la mbóot mi yéeg ñu denc ko ñaar fukkeel muharram te boo toppee mënoon naa ci gën a xool lu bare bare bari waaye jëmmi dem gi nga xam ne Cheikh Moussa. weeru tubaab bi sax moo tax ñu ñu jortu ne ñu jortu ne 19 euh, muharram ci la feeñ. bis bu mu feeñee ci la yéege loolu lañ jàpp. su fekkee da wër at yi mën ngaa indi ay at yu bari yu bokkut waaye. bi benn ci bi gën a siiw ci mooy baytu bi nekk ci euh, jaawartu nga xam dafa xam ni dëkk na maag sama borom lastu ashuku abadan fii kaw ni jaaral badien yi ajaban li kaw ni ajaban joojee boo ko arrêté soixante seize la lay jox bu dee yokk nga ci alif ga bu dee yokk ko ci alif ga soixante quinze la lay jox kon foofu mooy mbir mi ndax am na ñu bàyyi alif ki mais bu dee sensibiliser dafay indiwaat dafay lay indiwaat ci maanaam sëñ bi lim lim lëkkaloog bisimilah rahmaani rahiim waaw kon euh, muy lu yéeme yéeme nga xam ne sëñ Tuba ay mbiram dafa doon dafa nëbbu ci alxuraan maanaam. maanaam da ngay jeex ci alxuraan soo soo gis sëriñ bi. bu la yàlla dimbalee boo koy gëstu rek di ko gis. ndax relation yooyu mu am yëpp. ak ak euh, suñu borom rasul sallallahu alayhi wasallam ci alxuraan ak ci xasaay bi waaw alxuraan du moo ne loolu daf may indi ci bi Cheikh Moustapha di natt jumaay Touba sànq laay vérifié ak Amadou Ndiaye Ngiraan euh, dimension yi dimension yi jumaa yi

kon kan lay waxal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mënta bind te suñu borom moo ne karaamati xattu yet yi kon ban bindkat la suñu borom di waxal foofu 96 hmm? boobu bii daf daf lay indiwaat ba tey ci surtout ci ci maanaam bismillah maanaam mi nga xam ne bii moo nekk ci alxuraan am rapport ak Serigne Touba ndax fukki baat ak juróom-ñeent yi njëkk wàcc ci àllaq jooj yi foofu la yem alamal lisaan maalam yaalam fa la yem boo ko wàññi fukki baat ak juróom-ñeent la Cheikh Moussa Tambli jumaa ji jël 96 muy 96e sourate chapitre ci alcorane hmm ndax yene a dégg li wax bu baax dafa xaw dafa xaw compliqué waye simple na manam azar dafa amout ci mbiru suñu borom azar daa amut lu lu am lu ne rek suñu borom fekk na mu calculer ko ba tek ko xana yow yaa ko doon xam

moom la loolu di indil te xadit mooy mooy fer te sëñ Tuubaa bu mu jógee jeewal dem kokki la mu njëkk laaj mooy alluway weñ mooy fer waaw lii faw ñu gëstu sëriñ bi loolu sëñ Modou Xaadi wax naan dangaa war a jàngi xam-xam ba ne ar soogu ñëw gëstu sëñ bi waaw mbir ni mu jaxasoo ak alxuraan faw ñu kem lu tax lu tax lañ ca xam nag xamuñ ci lu bari waaye li ci xam dafa doon loo xam ne lii day gindi nit kuy wër dëgg kii warul dëgg moom mënoo ko wax lu mu gëm waaw hmm? ah, kon Cheikh Moustapha bu nattee natt boobu yi jël chiffre yooyu yi ba pare jël moom moo ne nañ ko def fii jumaa ji natt ne nañ ko def fii jël yëf yi teg ko ci barab boo xam ne dañoo gis ne aw xeer la moo tax jumaay Tuubaa du am fissure xam nga loolu dafa dafa dafa doon loo xam ne lii boo ko seetloo te te te te xool da doo xam lan la lay niru lu dul dafa ne loolu maanaam tubaab mënu fa tax tax boo xam ne bii da am fukki at te doo am fissure lu toll jumaay Touba ak ni mu toll ak yëf ni mu yéemee fi mu tegoo nga xam ne euh, loolu yi lépp dafay ñëw ci fi ko suñu borom indi ci alxuraan ndax suñ suñ Touba moom diggante fii ak fi ñuy até bis penc lu ma waxoon lol la waxoon te ñu ne xaaf wal quranil majid khaf aw doj la lol lañ wax te dañ woy gëm nañ ne moy foofu yi suñu borom digël sëriñ bi mu def fi juma ji Cheikh Moussa def fondation bi foofu dafa don lu lu dafa don lo xamné buñ ko sétlo dina dinañu gën a jox pasteef ci sëriñ bi gën ñu jox dogu ci sëriñ bi sëñ Moussa nga xam ne ci bis bi te ji asora gi ci la feeñ du muy feeñ fekk na sëriñ bi nekk ci xalwatu di bin matlabul fawzayni toll ciw bayit muhammadun afdalu xalqullaay bi laa tardidun wala shibaay foofu la sëñ bi tolloon ñu roof aw kayit mu gis mu waññi gis ko ñu gis ne soxna Amituloo am na gan sëñ Abdourahman loolu sax dafa daan wax jant fenk na sëñ bind ci ginnaaw daan ne haza muhammadul mustafa ay jant nan de. waaw kon euh, dafa maaseeg Fawzeyni. maaseeg Touba. maaseeg feeñ feeñig Touba. ak Cheikh Mamadou Fall ndax ay ay wéer yu new lañ lañ lañ rawante kon loolu su amee mu mu kii ci bis bi ab junj la ci kuy seetlu ku ne. ndax asar mu amut jekki-jekki mbir tombe rek amut. Euh, aw nag boo ko ratee meew génn ci waaye boo ko jamee deret deret ciy génn te lépp mi ngi jóge ci nag bi waaw kon sëñ Moussa nga xamee ne yóbbu na sëriñ bi ba tubaab yi am ci lu leen naqari ba woowaat ko ndar woowaat nañ ko ndar mu ànd sëñ ma surang surang ak góor gi sant Tandine ca Loodo Merlin mi defoon rapport bi ba génn sëriñ bi moo moo moom la yàlla nattoowaat mu nekk gouverneur comme bi sëñ bi di dem gànnaar moo nekkoon gouverneur mu woo Cheikh Moustapha ne ko euh, da ngeen ne sëñ bi génn na moom ci boppam sax gëmut na yëf yi am na da ngeen sëñ bi génn na denc ngeen ko nañu bëggoon léegi c'est comme noonu la demee euh, ñu génne ko yóbbu ko tugal moo tax sëñ bi bind bayit bi def ay test ci moom ngir xam nañ ne nit ne ndax am na am na fuñ jaar moom nit du nit ku normal am na fu ñu jaar ak moom waaw ah, Cheikh Moussa ne ko waaw da ngeen may rey rey samay rak rey Cheikh Sëñ ba leen yàlla mayee loolu leen soob ngeen def dafa jóg claqué porte bi bàyyi fa ma sorong sorong ak góor gi tàndine ñëwaat suddu nes kii si ma fekk si ko fekk sëñ bii dindi kaala gi teg ko ma sorong ne teg sëñ bi ne teg ñoom ñëpp ñu ne teg moom yàgg Euh, masoon ne ko sëñ bi de suñ jataay bi ñu amoon léegi ak tubaab bi am naa ci xalaat mu ne ko bisimilah mu ne ko damaa xam tubaab ak ni ñuy xalaatee ak ni ñuy waajale lii mu ñu junj nii lu ñuy waaj a def rek dañu ko dañu ko gaaral ba xam kon nag nañ jël suñu matuwaay masurang ne ko Cheikh Moussa ne ko masurang na sa xel dal liggéey suñu tubaab wees na loolu gis nga gis nga avant sëñ bi teg pose première pierre jumaay Tuubaa ji li ma la wax li li ñuy wax top secret la commando jóge nañ France pour jàpp Cheikh Moustapha avion militaire boobee dafa daanu ci ci Atlantique bi ba tey ji France waxu ko France li mu li mu waxut bari na moo tax lu ngeen gisut tey leen bu leen ne amut neel gisaguñu ko waaye mbir amut ndax am na léeg ma dégg ñu naan septembre sëñ dong lañ foo ah kay sëñ dong lañ foo waaye la jiitu loola war a ñeneen France dafa bàyyi ay bari ay documents yu mu téye ba tey jii may wax ak yéen diggante 1895 ak 1902 amuñ ci benn page d'archive man demoon naa Libreville doon def recherche benn phrase laa fa gis benn phrase comme convenu nous vous envoyons le détenu politique Amadou Bamba signé MM comme niñ ko dit. Et euh, procédure administrative bi sëñ bi génn li tax ñu c'est sëñ nañ ko. Mhm. li tax ñu une bi C'est ko. kon lan le problème bi. la tax ñu une nañ ko. C'est tax day a nangam nang c'est la tax ñu ko wala bind nañ ko denc ko. def euh, classé.

ci ci lu toll ni France ak kenn nit koo xam ne kii yóbbul Cheikh Ibrahima Fall yóbbul kenn yorul paaka yorul jaas yorul dara kenn nit la jenn jëmmi nit di nit ku ñuul nag ñu gis la daan xew ci yonent te ñu jàng ko ci téere di xew ci jëmm ji xamuñu nag lu mu doon xamuñu fan lañ koy féetale waaw lii mooy wax ji mais tey jii la xew la xew Gabon bind ñu ci dara te la fa xew bari na sëñ bi amna na lu ci junj sëñ mom day junj rek mom ma am lu ci junj kon bu Cheikh Moussa waxe lolu France def li narone jàpp Cheikh Moussa ngir defene d'abord ñom France dañoo defone ne yoon wi day tas bu sëñ bi génnee yoon wi day tas moom kenn ku ne dem fenn amna sax lu ñuy junj ci sen rapport yi ne euh, cheikh bu nek da nga gis sa bop mané wuñ ñom ci sen biir kon yoon day tass loolu bin nañ ko kon sëñ Moussa li yéeme ci mbiram mooy dongo yi nga xam ne dongo yi sëñ Tuubaa lañ muy ku mu seexal muy ku mu bokkal maam waroon sali muy ku mu ku mu ku mu ñëpp ay dongo lañ daan dégg sëriñ Tuubaa naan yàlla nee na Jibril alayhi salaatu wa salaam ñëw fi léegi la fi dem léegi la génn gisatuñ kooko ñu ne yow mi yaa fi toog léegi te ñenn ñi mat lay bàyyi ci at hmm? Euh, loola nga fexe ba dajale leen maanaam euh, session comme ni mu amoon ci jamono yu sallallahu alayhi wasallam wala ginnaawam ginnaawam maanaam ci séance nag séance seen loola mënoon na am fii ndax daa doon lu yonent bi zaahiran wa baatinan hmm? loolu amu ci muy benn njaboot gu sew nga xam ne sëñ sëñ Tuubaa da koo dénkoon di ko tàmbalee ci ci ci euh, sëñ Abdul Ahad wàcc ba ci suuf xam ngeen sëñ Cheikh Mbacke Gaïndé Fatma màggoon na sëñ Blaat ñaari at li tax ma ma ñaari at mooy soxna Xadi Faat moo ma ne sëñ Blaat daal li mu jàmbaare woon dafay jekk-jekk rek ne dërër fii ñëw gaare otom daal di ñëw wàcc daan daal di daal di teranga ju bare bare bare ne soxna Xadi su ma des gor lu ma am bokkoo bokkoo yéen ndax sëñ Cheikh màgg ma ñaari at te man la sëñ njëkk a sancal sancal man la njëkk a boole dongo dongo lii sëñ moo ko soxna man mi la ko nettali kon nga téye ñooñee nga xam ne Cheikh Cheikh Mourtala mi gën a doon tut tànk ci saayir alxuraan mi ngi ko wàccee ci tukki sëñ Manouche Saay da ko daan déglu en même temps hmm? waaw waaw. daan nag sëñ sëñ sëñ Mourtala ko nettali maa ngi toog New York moom kenn nettali maa ngi toog kenn Cheikh Balsam amaana mu fekkee lenn jataay yooyu waaye moo ko nettali Mbaye Guèye mi ngi toog eh, Mbaye Guèye ak sëñ Pall Diop boole njaboot gu sago gi téye leen ba pare gere cheikh si cheikh si ku ci ab taaw ku ci ku ci wàññiku mu sam fab taaw ne topp leen ko hmm? ngir ñu mën a am chantier bu bii nga xam bii dañ ko doon gàllankoor tubaab yi ne dégg nga maam faaw ñu def chemin de fer bi Cheikh Moussa natee jumaa ji donc 96 sur 66 yooyu dañ doon wax ñenn nag ci nga xam ne xëy na xamuñu sëñ bi dañoo wax ni lii seng ko dong mëneesu ko waxuma la ak tabax nga bëgg a def fondation de mètres te moom la def deux mètres fondation ci suuf ci def fondation bi bëgg koo tabax ñu ne jëm ji day gént la daal rasulullah sallallahu alayhi wasallam naan ko naan xelam daa dem dal borom Tuubaa ca xaalul yerkam ñu naan xelam daa dem xëy na lool loolu la ñenn doon wax Cheikh Moussa xëy na xelam daa dem ndax ba ndax baa ba ndax ba mi mi gën waaye lii moom ma ne su ko sax seng wax ma la ak tabax mu bàyyi fa loola ñëw engage beneen chantier cinquante kilomètres presque chemin de fer guleet ci histoire humanité mësta am mësta am nit ne ab privé ne damay def raay ngir tabax yi néegub yàlla loolu mësta am ci àdduna xam ne raay bu jumaa nit ku jóg ngir tabax ab communauté bu jóg mhm. ngir tabax raay dong mhm. wara def juma ci aduna si ñu xam musta am guléet ci loo loo xam ne lii maa ngi koy vérifié ak sëñ Bakilo démb matuñu woon trois cent personnes nga sogo indi euh, la ca war ci ci nit ñu leen ñu leen di fay 1500 personnes chaque jour nga def ñaari nak 350 cent cinquante grammes dégg nga maam euh, bopp ceeb ak café ki voilà manam nga xamne ci 28 mois lañ ko def lolu loola li ñuy wax leadership. moo koy moo koy moo koy moo koy leadership bu baax moo koy moo koy incarné moo ko a incarné loola dem. waaye suñ borom far ko ci li ñuy wax pluviométrie nga xam ne bu daan taw dix millimètres day taw vingt millimètres. am nañ chiffres yi ñoom def nañ chiffres yëpp. muy lu yéeme yéeme yéeme sañ nga xam dañ ko war a jàngale ci école yi. li ñuy wax modèle économique. loolu la ab tàmbali ndax booy defarum réew. infrastructure maam xëy na euh, bokk na ci li nga war a njëkk defar ngir jële marché barab sàngam dara indi ko barab sàngam wala da ngay bay ceeb jële ko ci biir gox bi indi ko Dakaaru wala tomate wala leneen xam naa ne yaa ngi fu am solo dogañu la sax waaye euh, bi nga nekkee ci biir waxtaan bi ci la aksi moom sëñ Jibril xam nga daanaka maa dañoo bokk fi dañoo bokk fi <laughs> ñoom moom waa Daaru Xuddus la moo tax léeg-léeg maag Mamor dañuy dañuy nekk ci kii. Moussa Ba tey moom directeur directeur xam nga lu mu waroon def. waaw dem di xelli café takk takk deru waa Daaru Xuddus yooyu ñëw di ko séddale loolu la directeur waroon def tey. waaw waaye waaye waaye du ñëw fii toog. mais directeur moom tey moom. loolu la waroon def bu bu teeloon na ñëw. Euh, seggukaay bi laa koy tegal nële. Mhm. ne ko sa sëriñ Ngo. waaw dëgg mu ñëw boof fii toog ci suuf. waaw dëgg la takk deru suñu boobu. mu mënta ñàkk wala mu mu sol tenue bi. wilaya koy nuyu di ko baalaax. Mhm. léegi la ak si moom it moo coordonné lii vraiment. Mhm. jërëjëf sëñ Mamor xam naa dañ koy bàyyi mu nuyoo balaa sëñ Alaaji di. non non sëñ ji sëñ sëñ Moustapha. waaw euh, bolokeel ma bolokeel ma ko. ah sëñ sëñ sëñ dimbali ma rek nga bolokeel. kon aca kon aca léegi ki nu doon ki nu sëñ bi junj léegi. mooy Cheikh Modou Moustapha. sëñ Lamine lan la ko wax. bisimilah. allahu rabbul alamin. ci. laay tàmbale man Modou Lamine. julli ci xayril alamin. tey tagg ngeen ji limaan. auzu billahi al asim. min sarri saytaan rajim. man modlamin may jima jim numay tagge am dil khadim ahos billahi من سر سيطان رجيم من مدلمين ماي جيم جيم نماي تاجي ام ديل خديم خديم المستوى يومي ني تودي مستوى يا جوف لو جمال daane nga mbëri soog a dem mhm. sa turi wenn rawu ko sa waajurit kenn gënu ko saw askanit kenn sikku ko mhm. sa jikko nag kenn du ko am li tax amoo yow dendandoo mhm. jagle nga am ciw turandoo ngir koo fi bokkal turandoo aminatu du doon ndayam mbaabu ami doone ndayam seexul xaddim du waajuram tey ku am ngor gi nga am waaw waaw gi jagle yow rek a ko am aminatoo jur mustawa amintaloo jur mi tafaa kon mee tafaa may mi tafaa mhm. li tax mu sangaay kemam aminatoo jur mustawa mhm. amintaloo jur mi tafaa kon mhm. mee tafaa may mi tafaa li tax mu sangaay kemam Mm-hmm. Madina géeg Taayif gëlee Tuubaa gileeg Taayif gilee meetar yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba xam taar ba newoon ca Moustapha mm-hmm. moo nekk it ci mi tafa wir ga newoon ca gis nan ko it ci mi mm-hmm. Seex Moustapha ma la war telum la wax loolee la nar moom lum la dig faye ko bor kenn mësu ko gis mu bangam bu dee ci moo raw gone bu dee sawar moo raw ku ne fu mu toll rek di kun ngir bëgg lislaam jëm kanam ma wax la tuuti ci tabam nga xam ne Moustapha kemam li tax amul fenn itam la Moustapha mi ñàkk kem nee ñaara yi jëm si ci yow na nga ci yow dëgg yow kii jóg fajar xëy si la yow ak kii tañaxu ak lëndëm kii fajaru dafa fanaan jaaxle ci njël mbaalu mu naan yow rekk la foog ne yaa ci man dara de bul gàntu mbiram kii nekk ba guddi gi lëndëm mu wër ba jaaxle fu mu jëm tënër la am dundu subaam yow lu na laaj rek nee ko am nii ma la wax la daa defee num la digal noon lay jëfe xaaral ma nettalil la fii hmm. moom ni defoon bis aw jiwam daa fàggu woon moom aw jiwam ba ñépp ñépp foog ne moom day daldi ji mu fab jiwam jox nit mu def ko ak dundam dane ko xaalis nekku fi gerte fi am tama nga fee demal ca dencukaay ba fee jël ca te jaay ngir ñoo ci yam ñu ne ko lii aw jiw la mi ngi di taw te dencu la dara te fàggu war na la ñiy làgg ñoo bari itam mu ne añ ngeen di seenu reer kii ñàkk añ mel ni ko waar boo watuwul itam du reer lu mën na jël yóbbu këram hmm. fa bu jiw def ko ci suuf kii xiif ba faatu dem ci suuf bu ma robee def ma ci suuf lan laay wax ak sama borom yaakaar a tax mu xëy si ma te suñ borom it jox na ma ngir jiw wii delew na ma jullit du suur ba dëkkandoom mindee fi laay lii ma am ngir ji ci suuf du maye ndam yàlla mindee fi yee gàncaxam loo ji mu seqil la fukkam la mu ji woon nag sax na tey ku dem ba teewti di tey xam ni liggéeyal yàlla day Cheikh Moustapha rek la mu nag sax na tey ku dem xam ni liggéeyal yàlla day Cheikh Moustapha rek a ko xam la mu ji nag sax na tey ku dem ba teew fee taayif tey xam ne liggéeyal yàlla de Cheikh Moustapha rek a ko xam la mu ji nag sax na tey ku dem ba teew fee bayti tey xam ni liggéeyal yàlla de Cheikh Moustapha rek a ko xam ngir tey ku ne ngi yor boole ca mang waa këram naa tey jile faw ma dem ngir am sàkku mbégam lii lépp nag xam nga li tax daa yéene nit ku ne lu baax du jëf lu ñaaw du wax lu neex du yàq kenn ab deram daraa jëfandikoom xelam lu néew la muy laal baatinam ngir nee na nit ku nem am xelam la war di natt ay mbiram ku yor loxoy neenam di xaax nga duur ko ngànnaay dootu xaax baatin dafay defar du xaax koye ci saayir mu gërëm amoon na kàngam yu ko yu dëdd woon wan ko ginnaaw te mësu caa wax nit lu ñaaw nite gi daa jiitub juddoom baayam ya ñépp a ko gërëm mbokkam ya ñépp a ko gërëm daa mujj ñépp ñëw këram tuubal ko toog fa ne gurum ku ne di sàkku am mbégam jaambur ñi ak ñii di mbokkam am di du mer te du bangam defar na léppam soog a dem li tax nga xam ne moo fi gën daama sa woote genn ngan mbokk ak dëkkandoog ñii di gan ku ne na ñëw ma wut mbégam ba ñu fayandoo nag ba ngoon ba ñépp julli tëkkusaan nan daje waxtaan doora ñaan tey maa ngi nii ci seen kanam lu waay bëgg na daa di wax danaa ko def bu dee lu baax lu waay xalaat rek na ko wax bu kenn ñéeb lu ay mbiram lu waay bëgg na daa di wax danaa ko def bu dee lu baax lu waay xalaat rek na ko wax bu kenn ñeeblu ay mbiram mag gone tey ñoo fi yam sëriñ akub taalibe tam kenn ku ne na wax bëggam danaa ko sekkilug dégam ba ñu waxee ba noppi nag bam saafara ragg ya nag la wax ne naa dénkaane nag saa bopp samay maraam ñaari bayit la digle woon lam digle woon ca la ne woon loo gis jagul tuddel keneen du jëfi ëm di duy waxam ab sang akub sengayam di fiiti woon naaj fab keram jox ko ñu nekk cagronam ku ne mu jox ko lay akam taalibe day fa yëfam jox sëriñam ba koog yëfam lum ko digal mu ne na am gënal ko fopp bakkanam ku melagul nii sang goo am néegu ñax nga sénga goo gone gu ndaw nga màgg goo sang dafay seggi mbiram ku melagul nii duggagul taalibe këpp daaw gangal sëriñ du doon ku ñuy digal loo jëf ñu fay laak payam Seex Mustafaa jëfi sangam landi kenn xamul sikkam xaaral ma raay sama sikkim wax leen ci tuut du ne xalim Seex Mustafaa jëfi sangam landi na kenn sa tukki biir kajaar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 weeru ko nit ñi di ko xam au contraire da koo siggal sagalu ko da koo sagal mu daa durus yóor nam sagal tol na inna jattu ndongam da leen ni maa ko na ko naa ko bëgge woon lu ngeen ko jox ba ngoon danaa ci jot leen tuddaam nee na borom teral mbindeef yi dee leen suturaal mm. ngir ñi ngi moy mu leen di baal nëbb na say ayib itam su ma waxoon nit ñi li am kon dama yàq ab daram yàqub daram ngirub dërëm nit koo ko def di yéen yam nit ki bu baaxul bu ko ba rusel mbokkam ya bu ko ba ngir boo ko baa daañu la ba ku bon nga sànni du sa ndam ci lii la waa jaare jub far bàyyi luubal bàyyi fab te bu ko weeroon dootu jub jur gu ne daa amu yatam amoon na mbokk mu fa ñëw am ko mu bañ di ko fa jëw ni sëñ bi nag lu man di xew xamal ne diw bëggul sa mu dem ca kooka it ne ko Cheikh Moustapha mi wattu ko ngir nee na moom soppule ko te lii ma wax mi ngi ci kanam ba seen diggante xawa a nëx waajooja ñëw fa ak marax sëriñ bi noppi bañ a wax waajooja nit ñi daal di dem ba am lu mat ay weeri weer waaja dikkul di ko siyaar am mag mu baax dal di fa jaar ne waaja lii luy sababam mu ne ko man kat jaaxle naa ba tax na sax man ñaanlu naa sama diggante yàqu naa ak taaw bàmbal yi du ndam Cheikh Moustapha ma sa joxeef te xëw ma man lu ma ko def bu ma gisee du ree du kaf léeg-léeg mu jub ko sax mu dem mag mooma xëy Cheikh Moustapha dal ñu ko diw moom gëñ ne fee sëñ bi ne ko dun daje fii dun daje fee yemal xiyaam fekkee ne yéeneem dëgg la te nee nim def noonu la ku bañ yoneen kuñ dàkku la lii tax mu teg ma de dem mag ma ne yéexee sëñ bi diw yow rek la bëgg yow la naw te boo ko bàyyee dana bew te dana baw yow rek la am te lii ma wax nag bu amul bis penc baa nan ma mbugal man du ma jóg di la sasal loo xam ne doo ca làqe ndam sëñ bi ne ko laggal wooyi ko na ñëw nga du fekke ko danaa ko baal jéggulu ko danaa ko jox it ba mu gërëm wala ñu ànd gane ko fekkee teraanga yoru ko fa ballu doy yu taale ko na jàpp bés bu ci moom te xam ne am mbokk la mu jege sëñ bi nawle la bu ñëpp xam kilifa la rambaaj bi moo yàqi mbiram rambaaj bu dikkee yewi ko jox ko mu dem te bàyyi ko ngir lu mu xam dem waxi ko lu dul ba ko du saafaraam am na ku doon rambaaj fi moom dal ni ko diw am na ku doon rambaaj fi moom ne ko da génn ci moom yàqal la rek la bëgg moom te tekkiwul daa ñàkk jom mu ne ku jëw ñu bàyyi la kon yaa ngi jëw ma bàyyi la am yow de noo def noonu la bàyyi ko bàyyi ab deram am na keneen ku ñëw ba tey ne ko damay xuloo si tey mu ne ko neel day xul si kay am di xuloo du ay mbiram bu ma xuloog yow tey nga rus te koo dajeel dana la pes nit ñëpp maase di la xaas lee tax xulal rek te dem koo xam ne loo def junni def loo digle fukki junni jëf war ngaa xalaat jëkk nga jëf buur bee la ñàkk ci kàttanam nit sax bu lay dénk këram saa xëyee dur waa këram léegi mu nangu ay mbiram kon mbir mbiri suñ boroom béjjën bu dëkkee sax ci daan dana dajeeg bés lu ko daan bam daanu sang du añaan noggatu baaxul te du ndam martu bi dëkke dóore sax léegi mu daar wala mu maax sang du def lu jóg mu xeex ku nekk teetee comme xelam xam nga li tax mu ami ndam moom dafa daa diisoog ñoñam mësula xeeb mu xelam góor ak jigéen mag ak ndawam xam nga li tax mu ami ndam moom dafa daa diisoog ñoñam mësula xeeb kennum xelam góor ak jigéen mag ak ndawam nee na ku dul buur dana juum su ngeen gisee am di mu juum mbooloo mu bari dana juum man am di daay la gaa yi xam moom ni mu daa diisoog ñoñam ku ne da koy def ni jëmmam danaa la wax nga gën a yéem kenn du mustawal karim day woolu man nag fukki mag yooyu bokkuñu ñu jóge nag ku nekk jàng yow nag te doon ko am diine te gëm fukki tund yu bokkewul seeni xalaat doyadiwul te seeni yéeneet lëndëmul dara gënuñ kenn itam bu biir masaa des ñaari weer day seppi kenn woo ko reer bu mag ma reeree nag ba suur mu daal di ub buntu këram ne ko damay laaj nag xalaat nangam dalan nga ci xalaat looy wax ne doon looy mën a wat danga ko waxaat yemal xiyaam du sama yëf yàlla la mbaa sëñ bi mbaa yeneen bi la te mustawaa jëwriñ ji la bul ma curus ku ne xelam mu wax ko nag la mu xalaat te nii mu def da koy defaat ba mat fukk caay xalaat mu tànn nag yëg ko ca yéem lii tax bu juumee ñëpp joom fu mu xuri ko ñaami góom saa bu waxee nit ñëpp loom ngir mës la doy loo am xelam wax naa la lenn ci tabam wax naa la lenn ikamam wax naa la lenn ci mayam xam-xam bi nag laa bëgg a jëm naa tàmbalee ci alxuraan araf yi yëpp nag la naan guddeem gën a ca lay fanaan lim bind kenn du ko lim dongaam yi buñ masaa xëy mu jël xalimaam nga téye di bind rekk taa bàyyi nawet bu nekk ab kaamilam saa bu bayee bay jébbale boole ca kaamil jébbale nee na ku bëgg a jàppale bàyyam dalee di ak bëggam bind na kaamil yu ne xos te doo ci yër benn barus ngir du ca ba genn xomus soq na ba teesal dogam ma wax la tuuti ci muñam te wax la tuuti te wax la tuuti ci fitam li mu def ba man feewootu daam li mu déggu kenn dégguwu ko li mu déggit kenn déggu ko lim sumb lépp fóot na ko ayo ba muñ naa muñam ab fondement dafay dëgër lee tax ba am di sàmm ngor lépp lu ñëw rekk mu dér ba def la sëñ Tuubaa gërëm yàllaa ko def muy fondement te mat na sëkk fondement tabax bu dëree fondement baa tax mu àttani kenoom yàllaa ko jiital jiitu na mu jëkk séddu cëru na ba mbalaqoo wuutu na defal ko lépp mébétam wuutu sëriñ bi doy na ndam indi ko Tuubaa doy na ndam mm-hmm. sos jumaa ji doy na ndam niroog yeneen bee ëpp ndam wuutu sëriñ bi doy na ndam yóbbu ko Tuubaa doy na ndam sos sun jumaa ji doy na ndam niroog yeneen bee ëpp ndam Cheikh Moustapha nii la doxe du wax lu ñaaw du ko jëfee lu mas a am da koo joxe deuxième la woon ci turandoom sëñ bee ci feeñal coobareem ni mel ci Moustapha Karim moo tax mu xër ci jila doom daf ci lu kenn mënul ci doom ab lii xaddiimal Moustapha way nii Cheikh Moustapha ay yiw jeex fii du fee دافكو ايتام تي يننام صلي صلاتن تصفا على النبي مصطفى والي سوي الوفاء والمرسلين كلهم هكذا بلا موكو واي تاليف بي سيرن محمد لامين جوب مو عبد الخادر Samba Aminata waaw kay. mu sëñ Abdou Khadre moo way lii. moo ko way ci sëñ Modou xam naa ni xam naa ni moom sëñ Lamine moom. Mhm. ñun gisuñu ay sëñ Saaka ak sëñ Mor waaye ji jamono moom mag na ko. waaw ah. li mu wax ci sëñ Abdou Khadre. dégg naa waaw dëgg la tubaarkàlla. nii rek la mel. Mhm. waaw kon yàlla nañu ko yàlla fayal. ñu ñu ngi ñëwaat ci yow léegi ñu bàyyi eh, sëñ Jibril. parce que sëñ Jibi. Mhm. Euh, sëñ Sama. dina ñëw ci sëñ Moussa Ka wax sëñ mhm. Moussa sëñ Modou Sofa mhm. soose yi waaw waaw soose yi soose yi ci kanam ak soose yi tamit soose mooy sëñ Aliou Thioune ngal doole mhm. euh, sëñ Jibi bisimilah moom nag sëñ Mamor bul fàtte ni moo coordonné plateau bi moo ko sëñ Jibril euh, wax ni Ashura bi euh, day bis boo xam ni warees na cee mën a def plateau ci guddi gi mu yaatu ñu waxtaan ci waaye bi ñu xoolee ba xam ni Cheikh Modou Moustapha ci la feeñ rek ci lañu ñu Cheikh Modou Moustapha Mbacke mu baax mii accordé ñu invité ko mu ñëw toog loolu yëpp bokk ci ab liggéeyam ñu di ko ci sant bu baax a baax. Aram Diop daanu na. Eh, mhm. ca Thiès. waaw ñu ngi koy siyaar bu baax di ko mhm. nuyu. Ah, waaw waaw soxna Aram sama yaay soxna Mariamu Dieng. ñu koy siyaar wér wér aji Fan Mbàkke aaj. dëgg la itam ñoom ñëpp daal fi mu ne nii. Mhm. ñëpp a ngi jàpp Touba TV. di ko seetaan di ànd ak ndax message yi moo nu ko wax. dëgg la kon ñu bàyyi sëñ ji bi mu nuyoo. ñu doog a bàyyiwaat sëñ Moustapha mu continuer ak ñun. tabarkalla bisimilah. والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارك برم توبا بكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيوغي لين دي نيو دي لين زياره دي لين دوك شي بس ماغ بو سيل بو تيد بي دي بيسوب الاسلام واي دي بيسوب سيرن توبا دي بيسوب سيرن موسى نيوغي جيتال شي سونو نيو شيخ محمد منتخب ñaanal ko mu yàgg fi lool ci wér nuyu tamit Cheikh Ahmadul Ahmadunil di waxee dama naan yàlla na lépp muxtaare ci barke Cheikh ñu ngi nuyu bu kilifa yu tedd yi di ay jëwrinam mu jiital leen di Serigne Cheikh Mbacke Madina ñu ngi nuyu Cheikh Abdourahman moom Serigne Cheikh Gaynde Fatma nuyu tamit njabootuk Serigne Cheikh Gaynde Fatma gépp ci loxoom suñu sëriñ Cheikh Moustapha di ñaan yi tamit suñu sëriñ borom yokk ay leeram ak teraanga di nuyu bu baax a baax suñu wasi Cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Mbàkke Mohammed ak mboole Cheikh si Cheikh tey ji nag ñu am mbégte teew ci plateau da ngeen a baax lépp yéena noonu wax dëgg yàlla day xaw a diis rawatina ñuy waxtaane koo xamante ni wax dëgg yàlla Cheikh Moustapha damay wax ni référence la daa am wax ju mett joo xam ne damay dégg Cheikh Bara Mbaye di ko wax waaye day dëgg dañu yoonu murit bu amee sëñ Touba waaye bu egsee fii mu egsi Cheikh Moustapha wax dëgg loolooy dëgg c'est-à-dire que organisation bi ndax Touba bi sax seen bopp loolu lañ jàppoon jàppoon nañu fu sëñ Touba yam fa yi doon préparé yi ñu doon def yëpp seen rapport dañ naan daal comme ni ko sëñ bi junj ñu ko léegi seex si jubóowuñ seen biir nangam nangam duñ toppan nangam waaye euh, euh, way wi sëñ bi doon woy dafa war a nekk feuille de route xamante ni képp kuy waxuma sax kilifa diine waaye képp jiite dara rek war ngaa jël way wi teg ko sa wet muy sa ko war a yor muy voilà muy sa muy muy sa waaw feuille de route ndax dafa indi d'abord defi yi nga xamante ni moom la moo Modou Moussa jànk jànkoonteeloon tudd na ko léegi gis nga li ëpp solo ci yoon wi mooy organisation boo xamante ni bi Cheikh Modou Moussa di ñëw su ko defutoon yoon wi tey jii lii ñu ci am du sëriñ bi junj na ko bi fi sëñ di jóge rakkam yi mhm. daanaka am na su ñoo xamante ni ab taaw moo leen mag mm. ndeysaan dëgg la dëgg la waaye nga xool mhm. éducation bi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa defal boppam mhm. ci njaboot gi nga xamante ni moom la sëñ Tuubaa yaral boppam موي دغن شيخ موسى شيخ محمد الفاضل شيخ محمد البشير مبارك ñëpp واي nga xol ñi Cheikh Moustapha yar diko ko ci Cheikh Abdou Lahad jëm ba ci ba ci soxna May do do gis différence ci domi seigne touba ci ñi seigne touba yaral bopam même éducation ak ñi Cheikh Moustapha yar même éducation waye lolu dafa ëpp ndax ñooñu am nañ ci Cheikh Moustapha ñi lo xamanteni ni ñi ñi am ñu ko seen bay deug la deug la ndax bu soxna may demee ba ni bañ xamee ne ñu ak Cheikh Modou Moussa ñoo bokk baay yàggul. ci ndeysaan. tellement da leen doon wax nag man seen seen taalibe baay laa. Hmm. di leen tarbiyewu. Hmm. waaye loolu bu ko defutoon mag ñi fi ñu leen war a teg duñ leen fa teg. Hmm. Cheikh Modou Moussa da daan ñëw toog ci pénc mi. Cheikh Abdoulaye egsi mu wàcc siège bi mu toogoon toog ci suuf jël si Abdoulaye egg ci kaw. muy gone koo xamante ne amaana mënoon naa ci ba ngeen jéggal ma kàddu gi mhm. waroon naa mën a nekk ci daara ji jàng te moo koy jàngal mhm. mag ni ngi leen kii kat nii ma cër ko muy mhm. cëram mooy ab cëram te loolu bu ko defutoon toppante bi ak hiérarchie organisation bi am ci yoon mën naa bañ a am effectivement mais loolu lépp vision ci gisin bu sore xam àdduna mhm. moo taxoon loolu tey jii mu toog mhm. waaye mënoon na rek xool ni ñii kat samay euh, sëñ Cheikh mii sax sama sama taawaleen mag mhm. xool ni kat man ah, lii ma yenu ci yoonu murid liggéey bi may liggéeyal Sëñ Tuubaa tal naa leneen lu dul ay kopp koppal ak ay ay tuut tànk doy na ma sëkk ab liggéey ñu ma leen dooleel ak yàlla nag loolu rek doyoon na sëkk ah, loolu <laughs> waaye nag loolu moo. paluma gone yi am na ci leneen loo xamante ne bari nañu koy wax de. responsabilité la. sëñ bi junj na ko léegi. yor jiwu denc ko. ab jullit xiif. joxoo ko ko ba kooka faatu. ñu rob ko ci suuf nga jël jiwu wi def ci suuf bu ëllëgee yéen ñett ñëpp ngeen tase. yow ak waa ji faatoog jiw bi yëpp ngeen tase ci suuf dem ci suñu boobaa lan ngeen c'est-à-dire que responsabilité gis nga Sëñ Tuubaa dafay responsabilité yu yor àdduna bi ci kaw gis nga zimaamul wara si la daal fi yëg boobu mu yor mm-hmm. du du du du bëyitu kese du waxi kese te dafa rogalaat tey jii boo seetee Cheikh Mamadou Muntaxa loolu lay incarné uh-huh. Sëriñ mm-hmm. Saaliw toog na fii ko yàlla suñu borom ëppoo ma yërmande ci ñoom dëgg la loolu dañ koo donn te muy responsabilité dëgg la Moussa ñemewul benn yoon yor dara di ko jëfandikoo ak jullit am am benn problème dëgg la ñoom xalaatuwuñ tarixa xalaatuwuñ dëgg dëgg la dëgg la dëgg mindeefu mindeefi julli di parce que dañoo xam ni dëgg la raayab lislaam suuf sëñ Tuubaa moo ko yor borom Tuubaa barke borom Tuubaa wax nga dëgg de waaw dañ kooku nag ku ko yor neexal waaw waaw tegoo lu bare loolu mu waxit ci début bi dama naan ko le xalif des temps difficiles doon sëñ Tuubaa ci jamono ju metti benn 27 la fi sëñ bi bàyyi ko 29 crise économique des années 30 àdduna bi crash Wall Street sëñ bi dana ci dëkk. Hmm. loolu nit ñu amatul luñ lekk. àdduna bi nekk ci crise bu doy waar. feebaru peste tegu ci. yeneen i jafe-jafe yu teg hmm. tubaab yi jël alal ji lenn di teg ci seen loxo. nii ni da ngeen di dem xam la participation à l'effort de guerre ak lu ne ñu indil ñu ko tegal ñu ko. Hmm. ñu sonn lool. Seydou Moussa ci jamono jooju ci la tàmbali raay. maa loolu mhm. ñu tegal ko ci sart yu wér yu yu yu metti yu metti mhm. junni nit ak juróomi téeméer ngay indi ñoo xamante ni dañ leen di natt xool leen ñuy ay ponkal yu mat sëkk mën mhm. liggéey du ñu dul te da leen di fay da leen di dundal ndawal lañuy lekk waaw <laughs> yooyu yëpp koy dégg ñu xaaj ko ay ay ay ay ay ay ay ay ay kii. section ay section ak groupe. bu nekk ñu ne ko dina am cuisinier dina am xawma lan chef de gare dina am nangam mag yaa par quarante cinq personnes. nu ñu wax mu ne d' accord. nu ñu wax mu ni d' accord. Morel ay ay ay convention ay Morel la Prom ak yooyu diw yeeg ceeb yeeg am mu leen nag yeeg daan na leen café gi ak suukar gi moom may naa leen. maa leen ko yaral bis bu set. wala 1500 personnes nga bëgg café ak mille. café ak suukar 1500 personnes par jour. waaw. waaw dëgg la de. suñu Moussa kon moom bis bu jot màggal la doon def. waaw dëgg la de. parce que borom tubaab mu aajoo noonu li gars yi teg li gars yi naan raay bi si juróom-ñaari weer déedéet raay bi mi ngi tàmbali. 29 la ko tàmbali ba 31 lu mu gàtt gàtt def na ñaari at. 28 mois. ñaari at ak ñeenti ñeenti waaw. ñeenti weer. muy liggéey bu metti Mm-hmm. mu ànd koo ñoom te raay bi tamit liggéey ba da ca metti mm-hmm. ndax raay bokkut ak tali raay dangay ngay ba pare mm-hmm. doo a teg raay mooy foo fu ñu dem fekk mu mu xaw a mu xaw a montagne dañ koy dagg ba mu maase fu ñu fekk mu xóot dañ koy sëkk ba mu ràmbale ba lépp tàll ñu doog seet teg raay ñu ne ko ku mu jaar ci sa suuf da nga koy dédommager waaw yooyu yëpp mu jànkoonteel ko suñ mu dum safa ba indi raay bi am na journal bi suñ béykee si la indi woon mhm. tubaab bi loolu la wax euh, le les mourides et leur et palais en tôle noonu la ko tuddee mu ne mouride yi ak seen palais bi tout euh, <laughs> palais fer nga xam ne ni ñu ko defaroon seng yi mhm. booba jamono jooju ko sëñ bi wax na ko ci way bi mhm. kenn mënta am sax néegu néegu ñax ah, seng rek day day doon seng waaw booba seng euh, daanaka tey taxawaayu mar bu la am ci boobu maa la wax loolu ndax bu mag ñi doon wax naan sëñ sëñ tubaa doon wax naan sama kër gi dina dem ba doon sàkkatub seen mhm. <laughs> boobu mag ñi dañ naan ah sëñ bi sàkkatub seen <laughs> kon boobu kon tubaab bi ami cinq waaw boobu ah, oh, mhm. ndeysaan sa sa sa waaji maam borom gaawaan ah Cheikh Anta ministre des finances li <laughs> jënd ba indu kon yooyu lañu mhm. war a tey jii wan nit ñi gis nga euh, Cheikh Moussa li mu def lépp defu ci dara yi baat baatu. Mhm. diggante raay bi diggante procès yam ak tubaab bi diggante lijjanti titre foncier yi diggante lijjanti plan jumaa ji diggante tabax kook financé kook dara amul ci dara loo xamante ni def na ko ci baatu. Mhm. lépp da koo teg ci xel ak diisoo. Mhm. loolu nag moo war a delloo si nit ñi xam ni kat kilifa dafay diisoo. Mm-hmm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom la ànd waaye ñi lay mer ñi nga ñi maanaam ñi mer nga leen di woo di leen neexal mm-hmm. bëre gis nga am na ci ay woy sax yoo xamante ni ak bon nañ ci ci ci ci ci jamono jooju ñoo xam ne dañ koy woy nëbbuñu ko mm-hmm. di ko wan ne ànduñoo ak yow ñii di ko wax ni ah ñu daal gëmuñu lii nangam ak nangam waaye lépp rek si mat gi ci njàmbaar gi ci di leen defal dafa mujj yépp nangu maa wax loolu maa wax loolu na way way dëgg lii dëgg mooy tey jii ñëw naa fi yow waaw dëgg la kooku dafa baax di ko wax rek waaye am na ñeneen suma daan bañ tey ñëw naa suma daan bañ tey jii nangu naa mm-hmm. daa baax di ko wax ñu bëree bañal mm-hmm. mm-hmm. waaye nag nan la leen bindee loolu mooy li jara wan àdduna bi muñ ngor nangu di la jox di la di la di la di la di la seet di la xëcc yéene na lu baax fas yéene yi tamit dara li nga ko doon seereel ak li nga doon séentu ci moom àdduna du yàgg ba nga gis ci moom dara lu toll tey tarfatal ay na mhm. kon c'est un leader la yemale foo ko fekk dafay nekk ci ay principe am te principe yooyu sëñ bi wax na ko mhm. jub rek ak ngor danaan wax sax man seen soit juba ma doy dëgg la kon dañoo war a xam ne àdduna lu ci mën a nekk jub mooy li nga xamante ni moom mooy jëriñ nit ñi. Mhm. Sëñ Tuubaa da leen koo wax dañu leen lu tax du ngeen gis euh, gone yi di jàng yéeg ci ron. Mhm. jub gaa tax. <laughs> jub gaa tax. Ah, garab gu ne la ñuy yéeg. Mhm. waaye ron <laughs> dëgg guy gu daar rek. dëgg la <laughs> waaye ron. jub gaa tax. kon nag yal nañu suñu borom xal si njub. jërëjëf sëriñ bi maa ngi la fekk pour am solo. waaw naa ne maa ngi jégalu sax dafa doon <laughs> waaye indi uh-huh. am solo. Uh-huh. indi nga it si uh-huh. dañoo war a wax nit ñi am lu am solo si. sëñ am koy wax fan yii dañuy l'islam juróomi ponk la. Mm-hmm. waaye boo seetee ñaari at yi yëpp wala ñetti at yi daanaka ñeenti ponk rek la ñuy wax. <laughs> dëgg la de. ñuy xeex lislaam bu leen neexee mën nañ koo wéyal feeg dix ans bu leen neexee ñu ne jullit yi duñu def seen juróomeelu ponk. Mm-hmm. mais mais mais jibi juróom yaa ngi mat de. xoolal Touba lay mate. dafa dafa dafa am na ci Màkka mais ñu ngi aju Touba. aju ilayya fi baytihi kaabatan musibat wa saayil bayti hindi wal ama xurima. nit ñaa ngi ñëw Touba fan la ñuy ajee màggal gi musibat. loolu la wax de. ajoo aj si leen ilayya ci man. fi baytihi ci sama néeg bi. dëgg la. Uh-huh. bu ko gaa yi nga xamante mhm. ni ñu ngi xool ci place yi nga xamante ni moom moo am ci àdduna bi mhm. ginnaaw euh, baytul euh, makka ak baytul maqdis am na mhm. troisième boo xam ne su xamuñu ko ñu bëri jàpp nañ ne tey jii Tuubaa la yooyu nag sëriñ bi da cee indi yu am solo ci ni ko sëriñ bi dëxëñee ci biir ak yu mel noonu kon nag dañoo war a góorgóorluwaat ci lii jàpp ko xam ni tamit Sëriñ Tuubaa li mu teg projet de société la projet boobu kenn ku nekk danga nga cee bay sa waar di nga liggéey Sëriñ Tuubaa mhm. ni ma koy waxee mooy kenn ku nekk sa si doomi Sëriñ Tuubaa wala xalifa yi mhm. kenn ku nekk boo xoolee sa tour mooy sa mission ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi dëgg la dëgg la mhm. kon nag gannaaw euh, sëriñ bi tey ji mooy borom jataay bi duñu guddal dañ koy bàyyi rek tubaarkalla mu mu mu gën a mu gën mu gën a bégal gaañi mhm. waaye suñu àllaaji vraiment wax dëgg yàlla bég mhm. nañ mhm. ñoo ngi nuyu sëñ Lamine Diop bu baax a baax a baax sëñ Lamine Diop wérakaan ndax lii am solo la dëgg la am solo la dëgg la dëgg la portrait la daal portrait bu am solo ci ci ci Cheikh Moustapha yàlla na ko suñu borom fay amiin yaa rabbi jërëjëf euh, directeur euh, Serigne Djibril Ndaw ci euh, wax ju am solo ji nga xam ne yow wax nga ko moom nag c'est normal nii mu analyser ci Cheikh Mouhamadou Moustapha euh, yoon la ndax dundam gépp ci yoon wi la ko def ci gëstu la ko def waaye tamit bu bokkee Daaru Xuddoos te it bu toogoon di wax ci maam Cheikh Anta wala sëñ Fall wala ci keneen ku mu mën a doon it nii la koy defee loolu moo di murit waaye nag fi nga bokkit war nga ko maîtriser ba boo ci wax wax ci lu nit mën a dégg mën koo jariñoo ñu ngi lay sant bu baax a baax di siyaari sëñ Sidi Ndiaye mi ngi fële ci France ni ñu topp euh, ci liggéey bi ak Serigne Mbacke Ndaw moom tamit ñoom ñu ngi lay nuyu bu baax sëñ Sidi moom nee na mi ngi nuyu sëñ Alaaji euh, léegi la may yónnee benn message di ma fàttali lu yàgg loo xam ni ci jàmm gën euh, ñoo ko daan ànd muy muy ku baax moom tamit noo koy di ko siyaar bu ko defee sëñ Mamor dama lay bàyyi rek question yi tey yaa ciy dem ak sëriñ bi euh, bu ma amee lenn lu ma koy wax daal nga xamante ni moom laa ciy sof rek yow nga wéyal li nga xam ni mooy question yi mooy dénkaan yi nga xam ni sëriñ bi dénkoon na ko Cheikh Mamadou Moustapha ndax li mu réalisé li ko sëriñ bi dénk nga xam ne ay dénkaane la wala ay ndigalam la wala ay santaaneem la mu ngi ci biir li nga xam ne mooy réalisation Cheikh Mamadou Moustapha man benn question boobu laa xam ni mooy sama question yi ci des moom dama lay bàyyi dama lay bàyyi ak bi rek. foo foo foo foo dugg ak moom rek. waaw boobu sax mooy mooy question bi. Mhm. maa ngi koy bàyyi moom. Mhm. man daal euh, li ma jàppee li liñ fi jot wax yëpp. Mhm. sëñ bi wax ko. bi ko sëñ. Euh, li sëñ bi doon wax waaw. moom la sëñ Alaaji jàng doon jàng nit ñi di ko dégg mm-hmm. waaye jibi ndaw jàngat la ko def dëgg la dëgg waaye ak mat la rek mm-hmm. sëñ Modou Safa noonu fekkewuñu ko mm-hmm. ndax quarante cinq la fi jóge waaye boo seetee ñi mu yar ku mel ni sëñ Abdou laxaat sëñ Abdou Khadre boo seetee ni muy ka ni ñuy ka ni muy ni mu daan kaalawoo sax lañuy lañ la ñuy kaalawoo dëgg la maam mais xool leen ñoom nga xoolaat ay turandoom turandoo sëñ Modou Safa mhm. doo ci gis ku matadi dëgg la tàmbalil ci sëriñ Modou sa jëm parce que mën nga ni sëñ Fallou ñi ko njëkk a tudde doom sëñ Fallou ci la bokk mhm. Mhm. xool ko ni mu uufee rakkam boo déggee ñu ne boo tuddee nit doom da ciy am juróom-ñaari jikko waaye xool xoolal kooku rek sëñ Fallou neen yëpp rek waaw yëpp waay waaw do sëñ Fallou yëpp rek yëpp eh, waaye xoolal tey sëñ Moustapha Fallilou <laughs> waaw nga xam ne sëñ Modou ko yar benn ñu duppee ko nga xool sëñ Moustapha Bassirou mhm. xool sëñ Modou Rokhaya Mbacke Darou Salam mhm. c'est-à-dire kon dal léegi ñooñu ñooy portele sëñ Modou eh, Moustapha sëñ Modou Moustapha Saliou waaw kay sëñ Moustapha Saliou sëñ Modou mhm. Moustapha bu amul woon photo ñooñu ñooy ay photo dëgg la sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir dëgg la ci mbaax gi Moussa boo ko toppee foofu sëñ Moustapha sëñ Abdou Lat boo ñëwee këram màggal sëñ Abdou Lat da naan xalifa bi moo dëkk fi ñëpp di ko ñëwal ci yaatu gi ay et dangay am fayda bu ñu la tuddee sëñ Modou Safaan mhm. mais li ma ca daqalaat mooy da ngay am fit mhm. sëñ danmu sëñ Abdou Lahad dafa am lu mu ci nettali mhm. loo xam ne man dama koy wax di ko waxaat di ko waxaat te loolu mooy wóolu sëñ Tuubaa dañ koo porte plant ci gasub raay bi sëñ bi wax na ko léegi ñu ne ko tubaab bi nee na da koy fay tubaab bi ne ko ndax di nga fay mu ne fayuma bi mu génnee mi ngi ànd ak sëñ Masron ak sëñ Modou Safa Fall ak keneen koo xam ne sëñ dan bi muy wax dane du ma tudd tur Mm-hmm. bi ñu génnee kooku ne ko mbàkke tee ngaa fay mu ne ko bor buñ lépp ngay fay mm-hmm. ay bor bu ma xamul fu ma ko lebe du ma ko fay mm-hmm. mu ne ko tubaab bi bi mu naan la ndax di nga fay gis naa mer moo xam ne ci kanam gi fay kon kooku moom moom bokkatul woon parce que tubaab moo neexutoon ñeme dëgg la mu daal di ne ko nguurug France mu ne ko xeex ñaata tànk koy def booy xeex ñaata tànk ngay dër mbër di bëre sax da ngay dégg ñu ne jital na tank be la gëna mané mane nangam nangam. Mm-hmm, mm-hmm. mais da ngay dër sa ñaari tank deug la mu na ko koy xex ñaata tank ngay dër. Mm-hmm. pour dalal xel ñooñu moo tax mu wax lolu de. koy xex ñaata tank ngay deur mu na ko ñaari tank mu na ko suma lonkon sa sama benn tank samp ben bi. nguur France gep faq jëm ci sama kaw. ngir galankor liggéeyu seigne touba bi. te kama doon far farma ma. kama doon far buma faré danaa jaar ci seen i doq ñoom ñëpp liggéey jumaay sëñ Tuubaa ji dal ne ko te xeex bi sama ñaari tànk laa ci dugg <laughs> waaw kookoy question bii la sëñ Moussa Kan wax ci ngay jëkk a ñëw royaat maam dénkaanam mhm. dénkaan bi ci jëkk wax nga ko sànq mhm. Mhm. fexeel ba sama jëmm ji dem Tuubaa Mbakke loolu ana loo ñu ci dolleel ak lan nga ñu mën a analyser jotaay waaw dama damay ci turandoo yi ndax dafa am ñaari turandoo yoo xam ne defe naa ne xamu leen gi hmm. Mamadou Dia la tudd Mamadou ma ko wax. Mamadou Dia bi nekkoon euh, assemblée jamono Senghor. lu mu seq ak tukkuleur bu doon bu doonu tijaan ba dañ ko tuddee doom daf lay woon kon diplomatie Cheikh Moustapha. dëgg la dëgg la. xalifa Thierno Souleymane Baal tey ci kaw suuf Moustapha Kane la tudd il a quinze ans ci ci ci tournée Cheikh fi mu nekk nii mi ngi fii mi ngi fii wër terminus ndax ne woon naa ko naa la naa leen télévision ba ñu gis la ndeysaan moom Thierno Bokar Kane mooy baayam maamam lañ déporté woon bi sëriñ Touba di wàññeeku jóge Lambéré di ñëw Gabon fekk fa maamam maam ji di ko fóotal Cheikh Ahmed Tidiane Wane ancien ministre au passage maa ngi koy nuyu. Mhm. moom fu yóbbu ne kii foo nga xam ko. Mhm. Mhm. bañ demee sëñ Moustapha kan moo ma nettali lii kan la euh, sëñ Moustapha la tudd. Hmm? ñu génn Ahmed Tidiane Wane ne ma sëñ bi ab torodo. ba la nee sama maam moo doon fóotal diw war nga koo fonk. dëgg la dëgg la dëgg la. biñ demee ni mu ngi ñëwoon téere masal kul jaan boo xam ne sëñ Blaat moo ko joxoon signal ko ko. góor googu yi la quatre-vingt-quinze ans mi ngi fii. moo nekkoon adjoint gouverneur Abdou Diouf. dëgg il faut ngeen def waaw waaw la ñuy yenu rek. il waaw mooy mooy mooy xalu Thierno Souleymane Bal ci côté yaayam. Hmm. côté papaam foofu la jógee Abdel Kader Kane ma français yóbbu woon. Hmm. ko. Abdel Kader Kane euh, maanaam maam maam la ci moom. ay allemand bi lañ voilà ay allemand bi lañ mhm. donc ci tournoi yi laay wax dëgg la ak fulla ji mhm. euh, tudd leen sëñ Moussa mu sëñ Saliou waaw waaw sëñ Moussa mu sëñ Saliou ñu ne gis nga communicateurs yi nga xam ne dañuy nekk ci seri kër sëriñ si galaayaat waaw dañuy romb kër sëriñ Sofa Saliou moom boo duggee moom <laughs> kon euh, fulla ak pasteef ak ak dëggu eh. euh, xam nga Moussa mu ko defut mhm. maa ngi wax sànq ne ko wooye ci séeréer parce que am na séeréer boo xam ne bii sëñ mhm. Moussa lu tuddi doom te te du murit ba tey dëgg la Moustapha Moustapha euh, Camara la tudd mhm. làqoon na bu yàggut euh, doomam Boubacar Camara sama goro la ah, te kon diplomatie boobu monsieur Cheikh Moussa ba ay jàmm di ko tuddee doom lañu nan la defoon loolu moy wax ni donc loolu. ci turlo yi la la laa doon wax mais. dafa am lu seqoon ak nit ñëpp. murit yeeg ceddo yeeg euh, yenen euh, yenen kilfa yi nek ci yenen tarixa yeeg. ñepp la seqaloon ba ñooñu duñ ko mën a muñ. duñ ko gisul duñ ko mëna a muñ waaw euh, ngeen fàttaliku ne guleet gouverneur général bu Sénégal di fanane Touba dafa ñetti fan muy fanaan fenen fudul gouvernance mhm. defal na ko Cheikh Moustapha mhm.

Sénégal def ko Cheikh Moussa ak sultan euh, Mohamed V bu Maroc. Mhm. Dir bi yegg Cheikh Moussa wàcc France de kon nañ ko def doo doomi doomi sëñ Cheikh doomi sëñ Moussa mhm. du sëñ Cheikh Fatma. Mhm. sëñ Cheikh moo gàntal. amoon personnalité li li xew na fi sëñ donc loolu daf lay won fi France tegoon sëñ Moussa. parce que. chantier boobu li ko kii waxee. Mhm. grande dépression boobu nga xam ne bii. Mhm. Euh, li la koy gën a mën a fàttali. xëy na <coughs> at yi ñaari ñaari at yi bokk na ci waaye crash Wall Street bi amoon 2008 ba tubaab yi xaru. Mhm. crise 1929 grande dépression ba maanaam moo ko raw. ñu biir nekk ci grande dépression bi pareeguñu seconde guerre mondiale éclaté. tubaab yi xeex yi murid yi tabax déggu yàlla ci ci ci ab leadership kon loolu dafa doon loo xam ne lii mën na mën na si ko woon a ñàkk a mentionné par rapport maanaam turandoo yi. mu ñëw ci déggaat yi. même mun tubaab yi kat ñoo ñuy liggéeyal kii waaye nag ak nite daa daa daa da nanguwul say sa sa say nit ki ngay liggéeyloo nekk ci fitna nga neen ko ndax boobu bu ko neexoon ni contrat la seen mm-hmm. bu ko neexoon ni fay naa leen mm-hmm. bu ko neexoon ni fair bank bu ko neexoon waaye dafa ànd ak ñoom ci ne ah ñoom kat ña ci fitna kon nag. Euh, ñu arrêté tuuti ak nit dañuy. booba liggéeyu raay bi la wala eh, kii bi jumaa ji liggéeyu jumaa ji jumaa ji jumaa ji ndax quarante bi nga ko tàmbalee jumaa ji euh, presque euh, trente deux ba. trente kii ba quarante quatre trente neuf. Mhm. guerre bi décla déclaré mhm. quarante cinq avant guerre bi di jeex. sëñ bi làqu sëñ bi làqu sëñ bi làqu waaye bi guerre bi wettee rek dañuy ñii kat seen réew daa am fitna kon nag nañ taxawal liggéey bi. Mhm. ndeysaan loolu tamit niteem la. ci waa ak niteem la dëgg la ak niteem la maanaam jumaa ji mooy raay bi. il fallait nga am raay pour achever les matériaux de construction pour jumaa ji ndax mënees ko sëf ci mbaam ak i gëléem dëgg la fer bu toll noonu ak ciment bu toll noonu donte ay gàllankoor lañ lax ci biir ñoom waaw waaw waaw kon loolu dafa doon loo xam ne lii liggéey bu toll noonu ci jamono jooja ci contexte booba mënees koo imaginer te lii dañ ko war a bind nag ñoo ngi ci bind sax nag dañ ko war a bind ngir gone yi ay ay referan, ndaxte bu ñu dee xool lol doyul sekk ci modèle ndax raay boko ko doon boo doon évaluer tey da nga mam njëg gi dina dem lu mu gatt gatt gatt gatt 100 milliards de francs CFA ci yo xam ne yi trois personnes ñoko financer financé trois personnes ñoo financer 100 milliards waaw ah, ca booba ca booba trois cent personnes communauté mourid gep ci la waron toll à peu près mm-hmm. ñu financer loolu te immigration amutoon gasuñu woon ay or dawñu def ñoon commerce international lépp ci mbay ak taw lañ ko wéeroon kon nga xam ne suñu borom dafa dafa dafa dafa barkeelal liggéey boobu euh, donc ci ci ci euh, li ngay wax ne ndénkaan yi man euh, néegub yàlla moom moo ci jiitu loolu mooy mooy sacrifice bi ñu def nii waaye dama koy wàccee ci suuf mhm. indi tuut tànk yi nga xam ne daf leen waroon a jàngal mhm. jàngal dafa leen waroon saytu ni ko ni ko sëñ bi waxee léegi. Cheikh Abdou boo xamul ne bi sëñ Touba di génn tout tànk la woon. da nga naan sëñ Touba moo ko yar. dëgg la dëgg la. ñeewul ñi sëñ bi yar. Hmm. déedéet. Hmm. waaw Cheikh Cheikh laata muy nekk ci xilaafa gi sax maanaam ñëpp xam ne kii. Hmm. bu dee sunni yu dong nga war a doon. moom mën naa tax nga jaar ci gëm sëñ Touba. dëgg la. Ah, bu dee bu dee bu dee ñuy woteeg sunni yu mhm. loolu dong lañ doon xool mhm. jëmmi sëñ Abdou Xaadir ak nam daan nam daan farloo ci jaamu yàlla mhm. ak teewlu gi war naa tax moom nga jaar ci ñëw sëñ Tuubaa dëgg la ndax kenn ci ñoom bokkul ak sa moom bokkul ak sa borom xay bokkul ak sa borom style maanaam sëñ bokkul ak sëñ Abdou sëñ Abdou bokkul ak sëñ sëñ euh, maanaam sëñ mm, tànk bi daan na metti muy sox di dem daf may fatli ñet ñaari guddi dakar yi nga xamni ne sëñ bu génné ba muy dem ci oh. batuba ma ngay sox waaw kon ñun dañu war xam li ñu doon lan la mm-hmm. sëñ touba loolu ko Rasulullah sallam jaraloon mm-hmm. kon ñun warna am lu ñu jaral mm-hmm. mënuñoo dox n'importe comment di di com di di comporter woon n'importe comment sacrifice la doon deret la laaj wala ñak ñak mhm. yi legi moy deret na la sharam ni mu am sama ben la humul janna kon lolu eh, dafa don lo xamni di kon buñ buñ buñ gene néegub yalla bi tàmbalee ci suuf gon yi muy jangal nga xamni suñu borom limu mu wax moy iqra jangal mhm. xam-xam saa salam wax waxoon ca saaba ne len dem len wuti xam-xam donte da ngay dem ba Chine mais muy wax dem len ba Chine gaay waxu len ngeen dem Chine jang shariatul mutahhara mutahara moy mooy Mm-hmm. kon yeneen xam-xam lay wax yeneen xam-xam ngi yoo xam ne ni mm-hmm. yu xalaal lay doon nga war koo jàng ngir jariñ sa société mm-hmm. ñu mën a jaamu yàlla dëgg la waaw kon dafay rejoindre li ji wax sànq ne wàccuwaayu wàcc ci àdduna si fi mu ne ñi ngi nelaw nag ñun waa Tuubaa ñi ngi nelaw ndax yëgu xamuñu ni ñu nit ñi ca biti jàppee xamaguñ ko xamaguñ ko sëñ te sëñ Muntaxa mi nañ ñaan mu yàgg fi loolu te wér. amiin yaa rabbi te te te ñu te ñu gën koo saytu ci anam gune ne. te ci anam gu ne. anam yëpp ñu ñàkk seen moo bëgg a euh, gis nga sëñ bi gis nga mm, sëñ Mountakha mu nekk nii. Mm-hmm. di wax lenn lu joonu jëm ci moom. maa ngi koy jéem a xalaat mën naa andi jéey ci àdduna si lu leer daal wax. Ah, waaw mm-hmm. fu ko fu ko jullit ñi teg. Mm-hmm. ko jullit ñi teg laa dëgg la jullit ñëpp xam nañ ne kii njariñul doomu aadama yi la dëgg la te doonoon lu toll ne tarafetal ani ci borom Tuubaa kon borom Tuubaa nu mu meloon mhm. Mhm. maam ci moom mi ci ngay gën a mën a xamee tabub sëriñ bi lewetuk sëriñ bi mën a dékkuk sëriñ bi mhm. ci moom mi ngi koy xamee ak am fitu sëriñ bi indil ma daaji ma bindu si lëf ci làkk wolof ci sang boob sang nag maasam ba sangaate ndax géeju ngëneel la di dàggay xéewalug ña ko gis taar nañam jamonoon teel déglu leen maati hmm. jirim yi ak baaya yeeg miskin yi ñëpp la fat lañuy yendu moo tiiñal ñu bon ñaati taba waxoo daara settantal ko seetlu ba tey yoo foo na bi nasri jàngal leen ñaayaati te nop ay magam ak wajuram di yërëm rakam yow ya ña mu yor ci yaatu ak yete serign sepp ak ñañu bot benno gërem ko ba fab tampé gërem jox ko muy bànkub njariñ yaati kana fasan khalisan bal bi rahmatihi lil lana wa miksaarul fuyoodaati kii saalikun xëy di mag suuban ne ba mel gora dis gor lii melom waati yéesul ëppul yéexulit diisul bewul waruwul yàkkamtiwul laawul du xeeb ku ñuy teete jayoog jayeeg wututur doo gis mu gaar ko ci mbir laa jël ma ñëy sóobi ñooy xam bii galeen xaati du tëgg bàkkaar du tulliw ay gawar bu mu yar du daanu cim lef du mam mu fas du nu péeti ndax imam la di su ko sabal xol bayaanata set filan la may nii du gottee mbaa mu gëddaate ña koy jox ak ña ko laajay yam du tontu lu dul lu sa duxul guyuteeg cay ree du diktaate maa xaala xattu illaa fii tasawudihi jaaraama waaja ko wax kii mooy wayam waati jëmbat yamaamam jëmbat suuxat ko nemmiku ko moo dib liggéeyam du laaj nit foofu fër féete siyaara ak addiyaag wax jàmm sakku lu bon jub xocc dëggal yitteem la tiime koy woote wéetal sëriñ bi ci dëppoog sunna nekk murit nangu dogal la fi dindee wuute ak joote pas-pas bu dër manam masla xam di jëf lu rafet xam yàlla xam yi la yii lay waar ñay réete xammee gawar yépp ak ñay tànku ak ñañu boot moo tax du fàlla sa kay nax gaaya fay roote kum jiite ak julli muy kuy dund mbaate ko dee bur yàlla jéggal ko laajal gaay a gis tuuti yeesal na daaru minan ak poroxaan dundalit warab ya baayam amoon du wor du boddaate walam yëjji min sawil iflaaxi wal bu laxaa bi saccaxe wa sixri min usril sa jiyaati demal ba tiib daaru tanzil ak mbulëg yani mel état ONC du xam lam naal doo kaate ku dégg lii nag war a xam bii sang xam-xamu doon ngir portale catalogue day junj mbir tuuti ko ci sant ak bàkk moo di doon ay sëriñ Basiiru turam waaye Muntaxa Saati na yàlla dolli ko ak jàmm ak gudd fan te def du soppeem ah. ak mos ak ndolleen ak njëggal wér ak gudd fan jàmm ak jag ak euh, euh, am solo dañ lay bàyyi nga continuer rek sëriñ Moustapha Dieng agsi na moom tamit xam naa ni dinañ ko dalal léegi ndax tey jii day bisu Ashura euh, moom it bëgg nañ euh, mu indi nu tuuti ci Ashura nga xam ne dafa dëppoog ganek àddina ak Cheikh Mouhamadoul Moustapha mii ñuy waxtaanee euh, incha allahu rabbi ñu bàyyi sëriñ bi fi mu nekkoon mu continuer ba ci kon ma doon tàmbalee ginnaaw néegub yàlla bi sëñ Tuubaa dénkaane woon mooy mhm. Cheikh Moussa ni mu taxawoon njaboot gi di leen jàngal mhm. njàngale moom mi nga xam ne moom la alxuraan njëkk a wax mhm. ne iqra moo tolloon ci sànq salaam wax naan dem leen jàngi xam-xam foofu la tubaa toll fi mu ne. Mhm. te am na luñ ci jotoon a dox lu ci euh, lu ci ñi meñ ci Serigne Touba jotoon dox. Cheikh mhm. Mamadou Mourtada. Mhm. sëñ Cheikh sax xëy na école yi moo jiitu. ñëw fii muy muy muy muy njàng moo xam ne bii bari na ñoo xam ne ñii duñu ay murit mën nañu def ay témoignage ay an ci bokk na ci ak keneen ak keneen. Cheikh Mourtada ñëw euh, créé système Al boobu. ngir njàng mi. sëñ Muntaxa ñew mhm. wallahi yalla xam na ne bi ñuy daaw barab. Mhm. mané xel mënta nangu. Mhm. nga ñew Touba ñu ne señ Touba bind nangam mi ton te giso université. deug la ya 3 ans la ko waxtaan nit. naan man dal dama jaxlé ndax xel mënta nangu ñu diw bind na ci lu toll ni ak bindum qualité meeg limu lambo ba pare nga ñew fa ñu ne université amagul fi xam ne sëñ Muntaxa kon fi mu joxoñ mhm. xaw ma nit ñi dégg nañ fi mu joxoñ wala déet dëgg la waaye li ci gën a yomb fi mu ne moom la ñuy def muy tabax mhm. tabax moo ci gën a yomb mhm. lay na ca biir nag di ci njàngale nga xam ne tey jii nañu xam ne te ñu ngi may déglu ñoom commission yi nekk foofu nii nañu defar ab cyber institut bi jàngale cybersécurité la njëkk def euh, sàmbabo yi nekk ci àll bi Mhm. mooy xàkki sa système yàq sam njàng. Mhm. nañu njëkk a def nañu am ay professionnels yu wër yoo xam ne bis bu ñu tegee ba tàmbali jàng. Mhm. ba am ay ay ay ay euh, programme ba commencé njàng mi. la ñuy denc ci machine ñu mën ko sécuriser. te loolu dafa tumbaranke biir Sénégal. xam xam naa li ma wax baax du ma ci xóot. ndax mën na maa laal lu ñuy wax secret défense. waaye lool tumbaranke la ci biir Sénégal. muy cybersécurité. kon nañu nañu nañu nañu bàyyi xel loolu maanaam ñii xam ñii ñii ñi xam ne dañuy war a tànn ngir ne programme bii la ñuy jàng wala programme B wala programme B est-ce que cybersécurité boobu day euh, day màcc ci euh, machine est-ce que du bokk est-ce que fi jamono toll sax lu aar dëkk ba ñoo gën a nekk ci lu ko sécuriser sëñ bi vingt quatre heures sur vingt quatre waroon na am ay vigile yuy wër jumaa ji vingt quatre heures sur vingt quatre Touba waroon na am. Mhm. ay nit yu bi ñu loree nit ci kër kilifa. Mhm. matagul juróom-ñaari weer. wax ci wax mhm. ci jumaa ji. dañ koy jam nit paak mu faatu. Hmm? Hmm. il y a quatre ans kanam ci njiital sëñ Abib ñu koy ñaanal liggéeyam bi suñu borom taxaw ko ci barki borom Touba wala ñu ñu ko àndal ak ñi yéene ànd ak moom sax te nekkuñ ci waxtaanoon naa ak ñoom ne leen booba jumaa ji amagul ay caméra de sécurité mhm. am caméra de sécurité lenn la am lu ñuy wax control room fooy xoole kii dugg ak génn leneen la mhm. am nit ñuy saytu bisub ajjuma tam mhm. leneen la kaaraange moom suñ borom la ko digle dëgg la waaye ñaar la zahir rek baatin baatin moom xam ne wóor a ñanga ca waaye saayir si mënta ñàkk loola jar na sëñ Muntaxa xilaafa gi ñu ñu ñu ñu ñu jël ab général xam bi xam nañ xam nañu taalibeem mhm. bu wóor mu am ay élément ñuy garder sëriñ bi di garder jumaa ji di garder kilifa yi ak dëkk bi ñenn lan ci kilifa yi mhm. waaw ndax am ñoo xam ne ñi ay sible lañu mhm. euh, dama lay jox exemple sëñ Moussa am sëñ Saliou bëggoon nañ ko fay lor. Mhm. nit nit a ko wax ginnaaw bi ne dañ ko naroon yóbbu ba àllu Kédougou ñu ñu denc ko fa. Mhm. ñan la ay sénégalais lañu. dëgg la bokkoon ci système bi fi nekkoon. Mhm. xel yooyee nag ñu ngi fi ba tey jóguñu fi. sëñ bi ndax xel yooyee dafa am luñ bañ ci yoonu murit mu am ci lislam mu am. yéen a ngi may lu bu baax baax baax. ñooñu ñi ngi fi ba tey xëy na ay tubaab la seen ginnaaw. di leen seetloo ay bunt. ngir ñu mën a fànq sëñ sëñ Abdou Khadir. netug yàlla wàllu yu kaamil la borom jamono la. Hmm? jéemoon nañ. dëgg la loolu da ko fàtte. dëgg la waaw jéemoon nañ nañ ko jéeme woon. su fekkoon ne suñu borom anto woon na ko noona. dëgg kon dañ naan fii baatin amu fi. Hmm. Hmm. dañ nan fi batun am fi lutax ko kooki amul xalam na déedéet du ko fetal du ko paka du koy indi ba ci ten mu tabal ko ci wa mais seigne bi xaar ma yeggale ki nan batun amu fi ba bëgg wax ne ha ki nan batun amu fi xamul ne ginnaw yonent bi sahaba yi Abubakar sa rek la ñu wax bi dégg na li nga wax waaye wax bi dafa am ku yene won mbir am ngir meuna a fanq pas-pasu ci murit wala murit yep d'accord kooku bëgg mooy jël jëmm ju sell joojee dugal ko ci teen ñu ne ñu xëy di wër sëñ bi ñu ne sëñ bi dafa xaru kuy xaru ku kon foofu baatil newu fa understand loolu lañ jubloon ñoom ba tax ñu doon def loola te jëmm ji nam toll ak sëñ bi nam wo nam woyofe ci saayir mënu ko yëkkati hmm? dëgg la kon nga xam ne kon ñoo ñooñee doon xalaat loolee ci jëmm joojee gisoon nañ ne kooku ab pilier la boo xam ne bii ci yoonu murit bu loola amoon kon yoon wu nit man naam xëy na nit ñi ñaan ah fii ka dara newu fi mhm. def nañ ko sëñ Saliou ndaxam mhm. hmm? jëm jéem nañoo attenté euh, à sa vie mhm. loolu mi ngi am ba tey sëñ bi dëgg la xam nga bu yàggul ñaari événement yi dafa am jàngat bu ma ci def gis nga at mi sëñ Muntaxa di julli si tasanteeg président nekk fa mu am ay jafe-jafe. ba mhm. mu wàññeeku. Mhm. foofu laa ne euh, yoon wi jot na ñu am seen service protocol bopp. Mhm. gis nga fu mel na Touba bu président di déplacé protocole président. dafa war a ñëw tase protocole xalif bi fi nekk ñu waxtaan ba juboo ba xam ñu leen sëriñ bi mhm. heure bii lay départ mhm. fii lay egsi mhm. sëñ diw day ñëw sëñ diw day ñëw sëñ diw mbooleem xalifa di bokk njaboot ko sëñ Tuubaa ku ne dañ laa war a yónnee motard ak escorte bu julli si parce que tamit président moo leen gane si te ñoom it ay kilifa lañ dëgg la ñëw si jumaa ji di booxante wala ñu leen di jàpp dëgg la man yam naa ci seen boo xamante ni Mhm. président Ablaye Wade ñëw ci jumaa ji julli si sëñ Sidi di ñëw Ablaye Wade dugg ñu tëj jumaa ji sëñ Sidi Matar ñëw ñu téye ko naroon na indi incident boo xamante mhm. loolu lépp ñàkk protocole bu ak waaw loolu jamono sëñ Saliou la woon ah, mhm. ah, jamono sëñ Sidi boobu mooy xalifa boobu mooy xalifa ñu tëj jumaa bi tëj li may wax nii sëñ soo toro mën na mën na ko confirmer dëgg la dëgg la ci yam dëgg la não nga ñàkk organisation rek waaw la leen war. não président dañuy sécuriser. bu duggee ñun. dëgg la mais nag war nañoo am ñun suñu protocole. não la mhm. deuxième chose bi mooy. Mhm. journée xasida bi. Mhm. nii ma gisee ñu dund ko. benn force de l'ordre ñëwu ci. ñëwu ci ah, waaw. benn force de l'ordre. la ko não ah, tabaski ga. waaw kon tabaski ga. li sécuriser. mbooloo mi tase fii si journée xasida bi. jar na ñu réfléchir ci lu mel na xuddaamul xaddim wala yooyu nan lañ dooleel leen dooleel leen bi wax nag ñu wuti expérience boo xamante ni ay taalibe yi murit a ngi fi yoo xamante ni xëy na ñii xam nañ protocole ñii xam nañ sécurité ñii xam nañu organisation ñii xam nañ ki ñooñu ñu associé leen taxawal loo xamante ni bu ëllëgee bu bu bu bu bu état ñëwee jàpp ci jàpp xayrul bu ñu ñëwut jàpp ci ñu organiser suñu bopp journée xasida bi défaut boobu dong lañ moo la laaj gis mooy dañoo bàyyi oto yeeg ñëpp teg si jaxasoo ci biir ku nekk gaara fu la neex. Mhm, mhm. loolu nag euh, day fay aajo. ñuy mhm. mais kenn ku ne doon sa gendarme organisation nit ñi kenn ku nekk da ngaa organiser sa bopp. dëgg la voilà. voilà kenn ku ne da ngaa organiser léegi nag loolu mooy léegi nag war nañ ci xalaat nag. war nañ ci xalaat. ci am suñu système sécurité. ci am suñu système protocole am mhm. suñu système organisation yoro suñu bop sécurité d'accord mhm. deug la sëñ mhm. force de défense et de sécurité mom la mourid yi war même boudé dee khadim ak keur yépp do ngay lax say genn ñooñu da ngay wuti expertise ba paré expertise avérée ñu defal ji formation ci karangé ak défense lolu lola ñakoy ñakoy ngank deug deug deug ay mourid sa rax lañ doon yoo xam ne sëñ Tuubaa dong lañ gëm te mën nañ leen a xam. am na fi ne. ah. sa njaal bi dama leen ne ñoo ngi nelaw. loolu laa leen waxoon. yàgg naa ko wax. dañoo bàyyi yëf rek sëñ taawul morom. mais nag li nga wax léegi kenn ku nekk yaa ngi yaa ngi xool sa kër. na ngay doxee. dëgg la mais l'intérêt général. muy xilaafa gi. nga xam ne xilaafa gi doon rek sëñ bi. mais ni gravi gravité autour du du xilaafa sëñ bi comme ni ko waxé dañu ko am sécurité. bien sûr deug la mais Cheikh Bass moom dafa war a am sécurité. Mhm. Mhm. dafa am sécurité. war mhm. na xëy ni dem rek dégg maam. benn benn Cheikh Bass. waaw waaw le porte-parole du khalife général. Ah, waaw mhm. d'accord moom heureusement maa ngi sécurité mais. <laughs> mënoo sécurité Mbacke nag Mbacke fa nekk da loolu dinañ ko seet. sëñ bi ah yow kay sécurité bi. waaw sëñ bi yaa ngi wax lu am solo. yaa ngi wax lu am solo Mbacke donc euh, mhm. Touba. Euh, entre guillemets état la sëñ bi. bañ ne Touba.

manam yonum lim am ci ay ay ay boromi xel ak boromi xam-xam. jëfandikoo wuñ len deug la. te jot na fim nek ni gis nga gis nga turki ma ngi fatlikou amna kilfa turk bu daan ñëw euh États-Unis am ben réception ñu invité ma ci ma dem. bu ñuy dugg sax dañuy loué ben nek bo xam bi bii jàkka la hôtel 5 étoiles. loué nek bo xam bi dañuy génn yëpp suite dañuy génn yëpp def ko jàkka. te ay jeunes yu jàng ba ne ar gëm l'islam lool waaye doo leen xàmmee mais organisation méthode mhm. loolu la ñu nag loolu moo ñu manqué diir bu luñ fay nekk waxtu yi fa lañ koy julee fa lañ koy julee dañuy luwe suite boo xam ne bii mooy jàkka ji mhm. buñ génnee wax def seen ay conférence ay séminaire wax ci mbiri àdduna fu mu toll mhm. tubaab dafa war a xam mbiru àdduna fan la toll dëgg dëgg la am solo ndax sëñ bii man moo ma gënal ka ne Vatican keneen ak keneen. moo ma gënal Macky Sall moo gënal Macron. wax ma la ak Joe Biden. moo ma moo ma moo ma ko gënal man. waaw parce que moom ma am la yaakaar. ndeysaan ah? dëgg la d'accord kon léegi. Mhm. bu ñu yëgee bu ñu amee lu ñu yëg am lu ñu xam. Mhm. am lu ñu xam. Mhm. Hmm? am lu ñu xam. Euh, nañ waxtaan ak nit ñi. ñu junj leen ba xam. liñ leen junj jub na wala dëng na. dëng na ndeysaan dëgg la noonu la mbir noonu la mbir yi war a tëdd waaye fi mu nekk mhm. nii. Mhm. dañuy dañuy dañuy dañuy tañu xarit di dem sëñ bi. dem c'est c'est dommage donc mhm. léegi. ma ñëwaat ci njàng mi. dama doon wax ne. université li ci gën a yomb mooy tabax. la ca gën a jafe mooy programme ya ak contenu programme ya ak sécurité ba. université war naa am courant. Hmm? kan mooy fay courant ba jumaa ji sëñ mooy fay courant bi am déet.

loolu dañoo sëñ bi li muy yor ci ci ci ci ci charge. bariwaa na bariwaa na bari na bariwaay goo xam ne. xilaafa gi ci boppam war na am revenu. revenu loo xam ni day ñëw ci xilaafa gi moo xam ay mais al azar université bi dañoo am ay carte transport. dëgg la yoo xam ne azar moo ko moom. dëgg la yu ñu organiser nag. yu ñu organiser. dëgg la mais loolu organisation la laaj moo ko man moo ko man dëgg la méthode laaj ay nit ñu sérieux ñu motiver la laaj ñoo xam ne ñi xam nañ ne ñii ab cause moo tax ñu koy def dëgg la kon bu sëñ bi waxee ci njàng te ma waxoon ci dénkaan sëñ bi sànq mhm. tàmbale njàng ma mhm. nga xam ne kon euh, système bi ñuy def nii mhm. euh, nga xam ne ñoo ngi ci euh, sëñ bi dafa xam ci suuf ba ci kaw nga waxoon maanaam daaray majaalis daaray alxuraan ba ci université. université bi ñoo ngi ci Achoura ah. deug la ñu ci Achoura j'ai compris. deug la mais lii ci Achoura la bokk. deug la deug la n'est-ce pas. deug la université bi su paré dafa war a am lëkkaloog lëkkaloog muy def université ci yu mag yi. Mhm. ci fànn. Mhm. ci ay fànn yo xamné yi du yak suñu pass pass yak suñu ngëm-ngëm. Mhm. science et technologie mën na ci lëkkaloog MIT wala Harvard wala feneen. business administration et cetera donc loolu dama koy wax ngir ngir ñi xam naa ni ñu koy xalaat waaye. dañoo war a njëkkanteeg jamono. gis nga ñoo ngi ne ci pandémie loolu la ñu wax. feebar. feebarum loolu moo ciy tegu. pandémie financière mooy tegu ci lii. loolu nañ ko xam. te tubaab yi ñoo ko sos ni nga ko waxee ñoo ko sos. bu la neexee mu def dix ans treize ans. jàng nañ téere xam nañ lañuy sëñ bi dañoo dañoo xam lu bari. suñ sëriñ bi daf ñoo xamal lu bari. xam léeg-léeg da ngay wéet doo xam koy waxal. moo tax Touba nii muy doxe nii mënta wëy. mas naa waxtaan mas nañu waxtaan ak sëñ Mamoun sëñ Fall bu yàgg ñu waxtaan affaire ay département protocole. énergie agriculture. ñu ci waxtaan li yàgg na li yàgg na de. mat ëpp ëpp na 15 ans xam naa ne.

ay informaticiens. Mhm. ay nangam-nangam ñu daje. Mhm. ay diplomate ñu daje waxtaan. Mhm. ñu nekk tuubaakat lii la xilaafa gi soxla. ci departement bu ne lii la xilaafa gi soxla. ñu génn nit ñi. ñu teg seen ay CV ñu xool seen cursus fan lañ jaar fan lañ liggéey lan lañ fa liggéey natt seen pas-pas ci sëñ bi. natt seen pas-pas ci sëñ bi. parce que sëñ Tuubaa. man jàng benn art te gëmoo leen ci sëñ bi. dëgg la. lol amna dañ nat seen pass pass ci seigne te amna amna natine amna nattiin na nattukaay. kon lolou defe naa ne dafa don lo xamni li fi nek ni taxawna aduna àdduna si moo laaj. te xam-xam buy nelaw bu fi nela bu fi nela seigne bi mi ngi fi xam-xam baa ngi fi di nelaw. dama damaa mos wax. seigne mbàkk son lo mané ko fi aduna bi toll. dañu wara xol mouride lépp fu ñu nek sëriñ bi def appel ñu wolé ñu série leen en catégorie socio-professionnelle ñu hmm. sëñ bi wax ñu si ingénieur ñu teg leen fee ñu jàng santé ñu teg leen ñu jàng assainissement ñu def leen ñu teg leen ñu réfléchir hmm. génne un plan directeur boo xamante ne si dix ans lii buñ ci sukkandikoo développé Touba amul sikk hmm. moo wax ko fa mu ne ma man de mën naa leen a daloo boo leen mënee dajale mën naa leen a daloo fii ci kër daal may booleeg suñ bay tayif suñ bay la yàlla dogal euh, mu wàcc ginnaaw bi sax am na bis ma ciy waxtaan ak jëwriñ mbàkk bi ba wax ko mhm. mu ne ma ah man nit de bu leen neexee hôtel bu leen neex ci Dakar ngeen wax ko mhm. bu ngeen tàmbali ko jëwriñ mbàkk mhm. yaa ngi seetaan <laughs> waaw na ko tàmbali mos naa ko mu ne ma non yéen ñaar seen jotaay foog ma créé bu leen neex ci <laughs> Dakar sëñ bi donte semaine ngeen fii def maa leen di daro yoroon leen lépp mais kon mu ngi war ne yëf yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu fexe ba ñu def xam nga président Abdoulaye Wade boo gisee mu réussir li mu def loolu la. Mhm. bu ñu doogee toog appel boobu la def ci patriotisme. Mhm. woo fépp fu Sénégalais mën a nekk ci biti te dafa liggéey ñëwal liggéeyal ko mhm. tey jii bu ñu ko defoon ni fépp fu mu te dama leen di wax ni murid yi ña nga ba Nassar. ña nga fu ne bi. ña nga fu ne ña nga fu ne. demal ay naay société yu mag yi ngay dégg ay taalibe fay ne. ñooñu tey jii bu ñu leen woowoon ñu ñëw kenn ku nekk ak sa expérience. ñu tëj leen fii résidence Khadim Rasoul bi deux jours wala trois jours. ñu génneel le document boo xamante ni su paree ñu ne yéen ñi nga xamante ni yéen ay financier leen estimer leen ko. bu ñu ko estimer yàlla na doon mille milliards. mille milliards kaw ñu ne seen budget baa ngi nii. appel de fonds ñu jël Touba ca kanam jël yooyu yëpp organiser ko kii ko prioriser ko assainir xoolal ndox muy taa dootoo ko gis Touba. te sëñ bi dafa wax ne suñu borom na nga def sama dëkk bii di Touba mu mel na Madina kon ñun waruñoo xool Touba di am poto poto waruñoo xool Touba di am problème dëgg électricité waruñoo toog Touba di am problème transport lépp loo xamante ni rek dafa Touba ku fa dugg dangaa war a yëg di àjjana mu bañ a mel ne sa àjjana jooju ngay wax climatiseur yi <laughs> tàngoor ak ci biir waaw dëgg la dëgg <laughs> la wecc bi <laughs> Moustapha uh-huh. nag may tuuti rek ma am lu ma leeral ci lii uh-huh. ni mu ko waxtaan ak sëñ Bàkki Soxna Lo dama ci waxtaan ak sëñ Abdou Mbaye Cheikh Khady mm-hmm. bërki dem maa ngi ci waxtaan ak soxna maam xarim sëñ Murtala mm-hmm. ma ne ko man li ma gën a metti mooy comme màggalu Touba mm-hmm. murit bu ne di nga rey nag te nag yi nekkul nag yi waa dëkk bi tey comme par exemple tool bu toll ni xel comme wala wala wala wala wala wala benn tool bu ne woon nii sëñ Moustapha wax nañ dem Hollande comme ñoo gën a màcc ci nag ñu jël sunuy ndaw yi réew yu jàng ba pare ci ay murit ñu dem jàngal leen nan lañuy ñuy ba am ay nag yu bari ñu ñu ne nag yooyu bi bi ñi ko jàng bi ñu ñëwee ñi ngi koy élever bërëb sàngam murit bu ne amoo droit dem jënd nag yi fooraa wala feneen ak feneen ak feneen loolu féete bor ci dëkk bi nga koy jënd see ñu ne lii nag yi sëñ Tuubaa mhm. ci gàttal nag yi sëriñ bi la Moustapha Kane deux cent mille da koy denc ba dem Touba am na sax nu muy demee ñu ne am na fu ñu ko stocké wala nangam ak nangam léegi loola jeex ñu ne soble par exemple ñu ne soble ñu ne am na tool yoo xam ne fi mu ne mi ngi nelaw te nangu naa ji loolu ñu daal di jël loolu daal di jël suñuy saaki euh, defar maam deux ans ñu ne dañuy dañuy fexe am jiwu soble mais murit benn murit amoo droit dem jëndi benn saako soble te binduñu ci Touba parce que ñun ñoo koy consommé mais ñeneen ñooy ñëw jariñoo ko. mooy organisation bi rek mooy lañu wax rek nga xam ne. te loolu tey lii lii sëñ bi wax ci université bi. Mhm. mënoon nañ ne loolu uni ci université bi la jëm. Mhm. nga daal di toogam yaag nga léegi nga jóge ci loolu. computer ñëw à côté leneen ñëw leneen ñëw leneen ñëw te loolu ñun ñoo koy consommé ci biir dëkk ba. Mhm. te loolu benn imaginaire ñu ne sëñ sëriñ bi te ñun lu ñu song daan ko. Ah. sëñ Saliou da daan santaane xel comme gars yi dem xoolal. lek tol ba nan ko dolli nu kon mi ngi fi ngëm ngi fi barki bi sëriñ bi ne xasaayit mouride mais imaginez léegi ñu ne am nañ plus de 100 tonnes de soble mouride bu na jënd kilo recette bi ñëwaat ci ñu def ko quatre ans ans ñu parce que attention les juifs yi ñu comprendre ni ñi def juif bu nga yor bitik ci kanam ci wetam nekk euh, du di jaay li nga xamante ne boromam ma ngi koy jaayee fu gën a sori du lay jéggi dem jëndi ko mhm. solidarité boobu am moo war a am mhm. fi mu ne aynub sëñ Ahmadou Badawi bi mhm. man bu ma ko gisee ba tey kenn mënut a am man naan benn butéelu ndox xanaa bu ma ko gisul mar waaye bu ma ko gisee moom laay naan te loolu bari na kilifa yoo xam dañuy dem ba Touba def ko ci seen oto ñëw indi ko feneen ak feneen loolu lañ waroon a def sunu lépp maa ngi jégu cheikh bi mu taxawal daayira lool la lépp lu ngeen di liggéeylu seen biir nangeen ngeen xool ku ko ci mën ngeen jox ko boo soxla booy tabax kër xoolal maçon bi si biir daayira bi nga mm-hmm. jox ko c'est-à-dire que yooyu mm-hmm. de développement ak de solidarité il mm-hmm. faut dañ koy dëgëral ci biir yëf yi naam sax am na da ngay gis yow koy génn man par exemple rek man su may génn damay liir Touba nangam tuubaa nangam ci kii bu may jënd je préfère jëndante ak ak ak bi ngay jox da nga waaye dafa des nañ ko gën a nañ ko gën a nañ ko gën a yokk tawar tawar saa yoo da ngeen ko waroon a da ngeen maa waroon a yeewi rek su ko defee waaw waaw xam naa li ñu xam naa ab la woon rek dëgg la ubbi mhm. ñu waxtaan waaye tamit woo ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, ñoom ñooy ñoom ñoom ñooy kilifa yi mm-hmm. comme ni ñu ko waxee ku mel ni ki jëwriñ mën na koo porter mm-hmm. ñu def benn recensement lancer benn mm-hmm. forum def def def terme de référence yi gars yi bëgg a ñëw ñëw ñu jéem a xool daal bu ñuy xalaat doo ko defee noonu sax loolu dañuy bàyyi doo ko jibaanee noonu am na neen noo koy doxee am na neen noo koy waaye jëwriñ moom uh-huh. na na wax ak Cheikh Bass ñu dem sëñ Mountakha ñu tàmbali lii dëgg lii ça fait quinze ans vingt koy wax dëgg la dëgg la suñ toogee plateau wax ko bu ñu fa jógee mu mu daal mu daal dëgg la loolu wërta ne dëgg la xaalis ci àdduna si fi mu nekk nii mm-hmm. pour Touba du problème mm-hmm. man assainissement bi ngeen di wax mm-hmm. ak addition en eau potable jamono sëñ Alaaji Bara indi naa financement bi wallaay nancim indi naa financement bi dëgg la quatre kilomètres carrés la ñu waroon def assainissement bi ñu waroon def ndox mi jële ko Touba Bogo andi ko Touba. Mhm. dégg nga ba sëñ Baara nangu ci ba xëy na boobu wadd jàppoon na ne mën na koo def. mën na ko mhm. dina ko def. Mhm. mais booba la américain yi doon laaj mooy. buñ nee sëñ bi kat lii lañ leen lebal laaju ñu la garantie étatique lenn mooy sa garantie. bu dee gis nga ne mën ngaa fay cent dollars masalaan ci weer wu ne. nga signé ne di nga fay cent dollars. Mm-hmm. loolu day nañu garanti. dëgg la lii lañ doon laaj booba. Mm-hmm. kon lu développé Touba. Mm-hmm. ci li muy wax nii. bind nañ ci kayit ba teg ko. dëgg la agro industrie. nag yeeg mboyi euh, nag yeeg. der yeeg yooyu yëpp def nañ ko ba pare. dëgg la waaw. boo xoolee lii lii lii dee ci nag ci biir Touba. ci ci semaine màggal gi. ak xar. Euh, te yow nga mën a jël der yi waaw nga bàyyi espagnol yi ñëw jël ko. Mhm. italien yi ñëw jël ko. yóbbu ko seenub dëkk dafa ciy saak ak leneen ñëw jaayaat la ko teew nga mën a def loola. Hmm? deru nag yi nga xam ne nii tey wax damaa jël euh, fauteuil cuir yeeg mais li ñuy sol dong ca Amérique ak feneen fu sedd fu ne muy manteau cuir defar ko fii lu yomb la. waaw hmm? ah, jafewul dara sëñ bi. kon euh, xëy na. dafay del dafay delluwaat ci ñaari biir organisation ak méthode lii mooy li nga xam ne bii mënuñoo fexe fexe ba dugal ko suñu bopp te fekk defuñu ko yëf yi yëf day tàng rek ah, fekk defuñu ko sëñ bi euh, yëf day métti rek ak maa ko tey thème bi Euh, liggéeyub sëriñ Modou Moustapha la ak dundam ak euh, ginnaaw sëriñ bi lim réalisé euh, te sëñ bi nekkoon na ci fu am solo waaye sëriñ mu safaa Dieng mi fekk moom tamit ñu ñu woowoon ko ngir bëgg ashora bi ñu fàttaliku ni sëñ Modou safaa bis bi mu gane àddina waaw waaw wala waaw sëñ mu Moustapha yow mën nga ñëw mën nga ñëw nii bu ko defee ñu yeewi ñu yeewi ñu yeewi suñu directeur mu dem waaye euh, sëñ Modou Moustapha dafa gane àddina ci bis boo xam ni day bis bi bis bu barkeel di bis boo xamante ni euh, di bis boo xamante ni sëñ Mamor euh, ñu bari dinañ koy faral di waxtaane boroom xam-xam yi ak kilifa yi ndax ñi gën ci doomu aadama yi mooy yonent yi te yonent yi yàlla ku ci nekk am na lum la teg loo xamante ni teg gu metti la waaye ba mu koy teg bis bii la tombeel bam mu lay jéggal eh, muy bis bu tedd di bisum ñaan di bis bo xamanteni ba la ñoo ñëwaat ci sëriñ bi nga xamni euh li dess ci waxtaan mi moñu koy tejeel ci sëñ Modou Moustapha eh, sëñ Alaaji dooro yëkkati li nga xamanteni mom lañuy la euh Cheikh Moustapha lan nga ñuy may tay ci euh bis bi nga xamni moy bisum Ashura Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مبكي طالبي غنا بنو سانتي سون بروم سبحانه وتعالى دي دلو دي جولي سي سانغ سانغي ديونتي المد عليه صلاه والسلام نيوغي لين دي زياره بو باخ دي جيتال سي زيار غي كليفه سونو ليب دي سيرين mun Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam ba naal gii mu fas yéene liggéeyal maamam gu tedd ga di xaadim rasuul sun boroom defal ko ci lu koy njortam ah, te mooy eh, bil Mustafa li banal xuduusul madrasatan ah, biha yazulul aza wal jëhlu ah, di ñaan goo xam ne nag xaadim rasuul moo ko ñaanoon boromam ne ko nag ma may lu ñuy tuddee madrasa madrasa nag ah, buñ ko waxee mooy établissement mooy jànguwaay wax xam ne bés bu taxawee biha yazulul aza dana fi jële lor wal jëxlu ak réer wal kabat ak coono te bés bu fi réer jógee lor jóge fii ah, coono jóge fi ah, mbakke ñoo ngi lay ziyaare di la jox sa wàccuwaay man de plateau bi sax mënoon nañ laa bàyyi nga àggale ko

ci walu kar way gi ngay wax nga doon wax sank rek lay justifier bu ci dess des ya dan fi al aswa wal akdari bil mustafa idfa kul su andari yow sun borom yow mi nga xamne yay rejeter lépp lu bon ya dan fi al aswa wal akdari ak nekh nekh yi bil mustafa ma ngi lay ñaan ci darajo yent bi idfa na nga rejeter rejeter kul su andari lépp lu bon lu dugg ci dëkk bi di tuba nag ma ko rejetel génneel ma ko ci dëkk bi maa ngi ñëw nag tuuti ci Ashura euh, defal ma dëkk bi wa maska nijjal maskanal wufraani defal ma ko muy dëkkwaayu njëggal waaye da cee teg na rushdi ak jubal muy dëkkwaayu jubal waaye wal irfaan nag ak xam-xam muy dëkkwaayu xam-xam waridwaan nag ak ngërëm muy dëkkwaayu ngërëm waaye wa daara ixlaasin defal ma ko muy dëkkwaayu sellal wa sidqin nag ak dëggal wal warax ak sàmm waaye wa daara sunnatin defal ma ko muy dëkkuwaayu dundal sunna si yonent bi waaye wa man jan nag min bidaax defal ma ko muy muccuwaayu waay ah defal ma ko muy dëkkuwaay wu xam ne day génne nit ki ci ak lëndëm di ko yóbbu ci ak leer ah defal ma ko ah, muy dëkkuwaay xam-xam ah ni ko sëñ bi waxee dëkkuwaayu xam-xam xam dafa am solo sëñ bi damaa dégg mu wax lu am solo du jàng kese day génn man waxuma xam-xam kese euh, dafa am ben borom xam-xam bu mag bu ñuy tuddee Ibn Arabi euh dafa bind wax ne la perfection des vertus spirituelles euh, peut provoquer l'illumination du cœur sans même que la personne ait une connaissance théorique dépassant les vérités élémentaires kon yar ak teggin mooy yóbbu nit waaw def naa sëñ bi degg na li ma wax euh, la perfection des vertus spirituelles

mën na ko yóbbu ci benn ascensionnement spirituel boo xam ne ci jeexal téere yi sax xam ne eh, dara yóbbu ko du xam-xam mais eh, yar ak tegginam moo ko fa àggale sëñ Tuubaa dafa ne fa kullu man li gayrihi raama tibaax fa innahu yuxramul fawda képp ku ci yàlla te ak yar ak i teggin nee na des na la xañ ak jariñu akub texe non seulement doo doo jariñu mais doo texe moo tax euh, teggin mooy base bi man je ne dis pas xam-xam la connaissance euh, n'est pas une réalisation waaye c'est la connaissance réalisée euh, qui une réalisation la connaissance réalisée nak la wax waaw def naa sëñ bi xam na bu baax mais wax ngi tuub bu baax baax la connaissance réalisée wa du xam-xamu jang xam-xam ni rek jang teg si nii waaye fexe dund ko dund ko ni ko sëñ Muntaxa di waxee nañu dund sëriñ Tuba damaa mës a dégg ñaari baat sëñ Muntaxa wax damaa dégg mu ne sëñ Tuba de jamono daa toll foo xam ne moom dañu ngi koy moomale lu ne lu waaye jóg ne sëñ Bàmba ko moom waaye moom da du nangoo nangoo moom lu dul lu yàlla gërëm du nangoo moom lu dul yàlla dégg naa mu wax tamit ni bare na lu nit yor di ko sëñ Bàmba te xamul bi bi Bàmba di wàcc ci jamono jëli fi loolu moo ko taxoon a jóg jëli fi loolu moo ko taxaw na jóg kon moom fi mu woo yi bërki démb rek ak journée xasida yi euh, ku ne xam ne ni bis la boo xam ne euh, lëmbe na jamono li sëñ Tuubaa doon ñaam nag am na ko maa ngi ñëw ci Asura tuuti ah, euh, maa ngi ñëw nag ci Asura dinaa sànni ñaari kàddu maanaam ngay wax nii ci sëñ bi <laughs> sëñ Tuubaa waaw li mu doon ñaan leen rek la mooy ndam mm-hmm. Mm-hmm. ak añ bii nga may añal yow suñu borom. Mhm. bu mu yem rek ci sama réew bopp. Mhm. waaye nag tasaaro ko ci mbooleem goxi àdduna bi. Mhm. ba réew moo dem fekk fa sama njaboot. yëkkati seen kàddu ak a feeñal ma lañ ma doon bajal nag sama réew ba tax mu génn ma. ñu taxaw ci goxi àdduna bi yëpp di ko tudd. te kenn du dox seen diggante lool. dëgg la wa hab liya nusrata fil buldaani ah, la. Ah, Euh, li ma ci Achoura xam naa mm. damay bañ a euh, mm. mm. mm-hmm. ci baatu assuran mm-hmm. li jóge. yi firi neuf. Mm-hmm. Achoura ci baatu ashran li jóge bi firi euh, ah, jour comme ah, bisu tay bi ah, muy bis bu màgg nag. bis boo xam ne bokk na ci particularité bis bi. ku ko mën woor ko woorul ko. ndax li tax moo ko bokk na ci juróom-ñaari fan yi Sëriñ Tuubaa limaale ci at mi nii bu koy faral di woor loo namm ci yàlla dana la ko defal soo xoolee jiimul muharram ci la bokk mooy ñetteeli fan ci weeru tamxarit ah moo coïncide ak màggalu sëñ Abdou Khadr sëñ Abdou Khadr boo demee ci irwa u nadim bu sëñ Mouhamad Lam Jóob Dagana danu fii muharramin ama jalsasin wulida cheikhina Abdul Khadr laylatul jumaa

sëñ bi bi mu tuddee bis yii dafa ne fukk lu man fii saw mi ha fas sa yanaalu kulla ma yarumu képp ku saxal di woor bis yii lépp loo namm ci yàlla dana la ko defal bo bis bi nag mm-hmm. ah, particularité yi ci biir bari na mm-hmm. ah, lu ko demee ni ay eh, du ma guddal ndax lu mm-hmm. demee ni eh, sëñ bi muy ñëw ah, lu demee ni eh, leelwe yi nga xam ne moom la sëñ bi di wax sëñ bi day wax ni daf lay musal ci lu ñu tuddee as ngaana

Euh, saraxe xeet yooyu yëpp sëñ bi euh, tudd na ko ci téere bi di Masaalikul Jinaan euh, ak ngeen li li nga wax sànq ci yonent yi mhm. aussi événement yi xewoon dafa considéré ak yonent mhm. bokk na ci li sëñ Tuubaa limaale ci Masaalik mhm. yonent yàlla Adama alayhi salaam ci bis bi la ko yàlla jéggale ci bàkkaar ga mu defoon ca àjjana ba moo sabab suñu wàcc ci kaw suuf yàlla Ibrahima alayhi salaam ci lañ ko génnee ci sawara sax yonent yàlla Nuuwi ca la gaalam nga teere woon yonent yàlla Isaa alayhi ci bis boobu ci la gane jamono mhm. sëñ tubaa nee na ci biis boobu aussi ci la rañaan dem ci boromam mhm. ah, wax nañ yont yàlla yunus ci biis boobu la ko jën bi waxee wax ne laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin mhm. ah, yont yàlla eh, yusufa ci lañ ko génne ca teen ba ah, lu demee ni eh, yont yàlla moussa alayhi salaam ca la labale woon firawna ca wax nañ ni tamit ci biis boobu ci la yont yàlla mat alayhi salaatu wasalaam gàddaay jóge màkk ñëw Médine Ah, mu bari nag ci aussi ci la solal ah, dégg euh, waaw la ci wax ci a micro bi mhm. ah, lu am ci dafa am mhm. lu am ci la miséricorde divine mhm. a fait qu'il y ait une relation d'homologie existant entre le monde visible et celui du céleste

Ah, Touba lahum husnul mahab ah, ñi gëm yàlla te fu rafet Touba ah, Touba mhm. du paradis ben garap c'est ne ci Touba wax ci kaw branche ci kaw distance au kergi, distance distance su <laughs> fa <laughs> distance c'est à 500 ans de marche Ah. nga xam ne nee na amul benn ajjana goo xam ne mm-hmm. garab gi tiimu la di la keral nga xam ne nee na feuilles yi mm-hmm. feuilles yi garab gi lenn li mm-hmm. wurus la li ci des xaalis la tubarkàlla tubarkàlla ah, Cheikh Moustapha euh, non Moustapha yow yow dañ lay dañ lay invité waat yow yaa bamba mbuub laay ah. boole <laughs> faaw ñu faaw ñu faaw ñu woowaat la euh, ñu ngi lay sant en tout cas ndax comme sëñ baa ngi waajal euh, livre yi mu bind ci sëñ Tuubaa war ko célébrer jëwriñ Mbàkke yi fay ñoom ñëpp ay mm. parrain lañ ci mm. dinañ ñëw ci ñoom waaye mm. livre ñetti livre la ci sëñ Tuubaa la ko def mm-hmm. sëñ Moustapha boobu moom ñun ñëpp nañ ko waajal mm-hmm. ndax it waajtaay safar lay doon daal mm-hmm. loolu nañ ko bàyyi yow boobaa euh, discours laa fa soxla boo xamante ne amul problème dëgg ñoo far tegal yow sa baaram ñu kon sëñ Mamor dañuy bàyyi sëriñ bi bu bu daanelee rek waaw euh, sëñ Alaaji li muy yëkkati indi léegu ma mooy doon tàggatoo bi dama bëgg mu résumé leen li muy waxaat la ci séeréer yi bokk. Mhm. ak sëñ Aliou Thioune mu mujje ko. Mhm. la mu wax ci sëñ mu Moustapha ca mhm. Casamance. soo soo joolaa yëpp buur topp ko. loolu moom ngay mujje dañuy bàyyi sëriñ bi rek. Euh, mu waaw waaw bu bu ma ngoog waaw mu daal ñu daal di. Euh, waxuñu sax ci ak taalibeem ak tarbiyaam ak ni liggéeyal sëñ bi mooy xitma boobu sëriñ Tuubaa di wax ci Tuubaa li am din mo réy mook sëñ Fàllu nii dong lañ meloon ca njaaree mag ci ceen jolof ceen mhm. jolof gënoon tànk mhm. tànk jër euh, ñuy tarbiye tarbiye dañ koy fàtte rek dañ xew dafa rëy mhm. dafa rëy maanaam ndax fa la Aysat Mariama ñëwee seet sëñ Tuubaa waaw la sëñ Tuubaa bindee fosti bisa fil xasanaat ceen la ko bindee am na sabab sabab bi neexut a dégg mhm. ci saayir dëgg la waaye ci biir laaj ci biir xasida gi ci ngay xamee ne ab laaj dafa samp sëriñ bi tontu mhm. muy yaa uma maaliki dëgg la yaa uma jaalil xaaliki ibnu kilaa bi xaaliki daf ma ne sa doom faatuwul mhm. jékku-jékku bind na si doom faatu daam ko laaj ndax sama doom dafa faatu. ànd sama doom dëgg la ah, dëgg la dëgg la ah, dëgg la ba loolu amee si si si naan Isaa ñëw. <laughs> dajeeg gànnaaw ak sañat borom dër bi. Mm-hmm. gànnaaw ak sañat borom dër bi mu jël bind bi naan xaq jaay xaq li xaq fi sax dëgg la yooyu noonu. te Isaa Mariama mm-hmm. xam nga sëñ bi day junj wax naa ko sànq day junj liyaar. Mm-hmm. Abdullahi lañ ko tuddee. Ah, nii Abdoulaye lay xam Mariama waxoon. dëgg la waaw ah, kon. Euh, dafa doon lu lii yëpp dañ cee bind ko. ñëpp bi lii émission lay laaj de. maa ci defut émission. <laughs> dama ko ci non émission lay laaj. ñëw. na jublu. Uh-huh. barke euh, nga xam ne Cheikh Moustapha. Uh-huh. tarbiya ga uh-huh. bind ñeent fukki kaamil. wala ñeent fukki kaamil ak benn bu ne ànd ak junniy dërëm. Mhm. Cheikh Moussa loolu. kaamil bu nekk day ànd ak junniy dërëm junniy dërëm. Mhm. xam nga loolu. Mhm. lu yéeme te ci ci bay la ko doon defee. dem ñaxantu ji laxasaayu bay. indi sëriñ bi. waaw kon. Ah, euh, loolu exemple la ci. موي توبا لعبد المريد صادق اللهم بخدمة ديخ خدمة بي كلا نيوارنا خدمة غو سل لو خامن خدمة صاح داي سل دغ لا واي نيت جيك جيك ندف ييفم ني سيغ مصار واخ ليغي دغ لا جاب ني ياغي سيغ فك سيغ نيو تي يو دغ لا دي يالا نتي يالا يالا مسل امين يا رب كي في سيغ مصار كان دي واخ نان ام دي نام نال سل لو تخ موي واخ لولو كون Euh, Cheikh Moustapha mhm. mataay gi mhm. fit wi dogu gi mhm. ngëm gi bëgg sëriñ bi euh, foo ko takk rek weesu na ko foo ko takk rek weesu na ko waaw moo tax euh, nga xam ne doy na ci li ngeen doon ñu sànq rek xilaafa xalif yi fi mujj nga xam ne ñun ñëpp xam nañ leen ba gone yi jàpp ne sëñ leen yar ci ci ci ni ci waxit mhm. rek ci loxo cheikh moussa lañ jaar mhm. dégg naa sëñ abdou lahat mas naa wax ni sëñ modou moustapha lu jur moo ma ko def ñoom ñëpp lu jur te moo ne ma woon abdou lahat ma ne ko mbàkke mu ni ma sa waajur tedd lépp loo defal teg ci sa bakkan dëgg la di nga am loolu te doo ñàkk doo ñàkk sa bakkan moo tax ay waxam yu bari ma daan wax naan sama bakkan bii laa ci teg ah, sama bakkan bii laa ci ndax wóor na ko dina ko am moom mm. te du ñàkk bakkanam eh, da ngay seet jamonoy colonie colon yi. Mhm. ngay ñemee porte plainte tubaab. Mhm. waaw ci jamono jooju. jamono jooju sëñ bi. Mhm. Hmm? sëñ bi loolu ak dogu ak pasteefu ak u fit. woo xam ni dafa fekk jubal. dëgg moo moo tax man loolu dëgg la waaye boo boo doo ñemee doo man loolu dëgg la doo xalaat loolu dëgg la la. kon loolu. nga xam ne tey jii réalisation boobu mu def nga xam ne kenn xalaatu ko woon. Euh, te au passage damay wax ne wilaaye am nañ exposition bu ñuy def ci ci ci màggal gi ci raay bi. Mm-hmm. màggal gii di ñëw. màggal màggal Darou Khoudoss gii le 28. le 28 waaw mais man sëñ bi dama ne. ci la sëñ bi yéegee bi. Mm-hmm. dañ ko war a tuddee sëñ Modou Moustapha comme ku ne tuddee nañ la lu ne. rue yaa ngi patin patin vingt. nan ko dindi ay ay Charles de Gaulle. nan dindi ay ay ay ay ay ay ay ay rue rue Villemot. Mm-hmm. Salle de Niéry ay tubaab lan. waaye ki nga xam ne moo mës a taxaw ne damay jaayante ngir am raay. Mhm. ñu dem ba ut raay boo xam ne bu moderne la. Mhm. raay boo xamante ne àddina bépp a nga koy coow. Mhm. mais nag jekk na nag ñu ne la terre de Serigne Modou Moustapha Mbacké man de sama wàll li dara caaro yi parce que fa laa juddoo. caaro yi ba fa Fass Mbao tudd naa ko Cheikh Moustapha Mbacké. ndax ah. dama ciy jaar. Ah, waaw sëñ kon euh, ñu ngi ñu ngi sant bu baax. ndeysaan bi ñaan suñu borom. Uh-huh. nangul ñu liggéey bi. amiin amiin amiin Mbacke ñu euh, Cheikh Mamadou Moustapha. amiin Mbacke booleem rakkam ak Cheikh si. amiin moom ci liggéey bi. Uh-huh. Euh, te ñu ñii di jéem a dox ci tànk yooya. Uh-huh. suñu borom dimbale ñu. amiin yaa ko suñu blaat daan waxee. àtte ñu ci yërmandeem. te bañ ñoo àtte ci maandoom. Euh, li sëñ Alaaji doon wax sànq. ci jikkoy Cheikh Moustapha. sëñ Cheikh dafa daan wax ne. koo mënta nëbbal ay ayibam mënoo koo yilif la ilaha illallah waaw ah, di da nga xam ne ayibam mhm. mu wóor li ay ayib la nga nëbbale ko ko mhm. nga nëbbal ko ko ndeysaan koo mhm. am na nit jël na lu bare bari ci alal ci biir këram mu xam ne nit a xamut nu muy def muy jéem a lijjanti ba xam nu muy wax ak moom jekki-jekki boo ko ne ko ah, dafa mel ni daal dañ mën naa fii nangam ci bilim bëggoon daal ku ñu ko seetali te xam na ne jëmm jee sëñ Tuubaa nax ji ca gànnaar ca ko lay tëjee nax ji def plan ñëw dégg nga maam di ngir jël bakkanu sëñ bi ñëw ne jëyi sëñ bi jébbalu sëñ bi xam ne léegi ko fi indi léegi ko fi indi moom bëgg suñ bi tàmbalee xalaat moom ci la ko ci musal bu ëllëgee bu yeggee foofa ndax xam ne lii mu bëgg moom mënta ne sëñ bi nag daal di euh, dandu ne nañ ko defal xayma ca ca barab ba ca ginnaaw kër ga mhm. ngir mën ngir naaj ji mën ko fekk foofu wéet <laughs> dégg nga naaj yi tëdd ba guddi naaj ji lu mag ñi daan def rek dina ko def dëgg la guddi jot rek mu sumi ko ba na koon day juró woon mhm. raam wuti sëñ bi lu tax mu summi ko mooy dafa xam ne malaaka yërmande yi boo summi ko ñoom ñu dandu mhm. mu raam wuti sëñ bi ak jaaseem mhm. ñëw ci xelam sëñ bi fekk sëñ bi bind bu yëkkatee rek mel ni dafa am lu téeki bi ci kaw mhm. waaye bi muy dem fekk na sëñ Amar Fall sëñ Amar Fall ndaxte defe naa ne bokkoon ci kuréel Lat Joor yi doon ceddoo am réflexe boobu daan ne euh, mbokkum taalib moo fa nekkoon yor naa ñaari tur yëpp lu ñu gaaw gaaw gaaw buñ moytuwul luñ gaaw gaaw suñ moytul nax ji dana lor sëñ bi mhm. dem fekk muy yëkkati ba bennu ñu tatafa ko dóor ci suuf sëñ bi jóg ne leen jéggaleen ngir ngir bu ëllëgee suñu borom jéggaleen jël daal di koy jël daal di jël yére suturaal nax ji mhm. jël jël ndox jox ko muy naan ma daal di woo ñaari yéen nag seen baam boo lëgee nag gungeel leen ma ko ba mu gën ba ci tax jóg ga sama gan nga fi ñëw la woon. loo mhm. xam ne gii gërëm naa ko yeewi naa ko. jël la ko tubaab bi diggoon cinq cent mille yi jox nax ji waaw ah, kon loolu loolu ku ku ku yërëm jaam ñi dëgg la dong moo ko mën kay kenn xam ne lu doon waaw ku ku am yërmande te moom mi ngi sa digganteem ak borom mi nga xam ne sëñ tubaab euh, alxuraan wax ne wala xam ne naa ba ni aadama mhm. waaw kon kon loolu lii sëñ Moussa doon wax sànq ci ci leer gi lay dugg te jàngoo mhm. aliman bi laa temps lomi bayi taqabalal karim ci sa lay sa yoroo baa noonu la waaw loolu sëñ Tuubaa da ko def ci gars yi dëgg la dëgg la dangay ñëw euh, liggéey ñetti fan mu seex la jox rek leer dëgg la jox la loo xam-xam boo xam bii xamoo ko woon dëgg la de waaye léegi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mat Jaw Baxa dëgg la de totalement arrêté dëgg la de dëgg la de ah, kon noonu la demee bis sëñ laaj waaw sëñ bi euh, kon looy tàggatoo Mahamadou Abdoul Khadim xanaa nag euh, mm-hmm. ñu waajal vingt huit mhm. euh, août bi mhm. incha allah muy màggal daal xudóos bi mhm. mooy bi sëñ bi bindee xaatimatu mën naa jaati bil xatti sëñ Ahmadou Maxtaar nag nu ko santal waaw daaw waaw déclaration bi def ci màggal moo xam mu digalaat sëñ Ahmadou Maxtaar nii laa ko waxee maa ngi dëgg la ci néegam dëgg la waaw ci personnalité la am sëñ Ahmadou Maxtaar maa ngi Sëriñ Tuuba yàlla na fi yàgg tëdd amiin kon euh, bis bi cham sa dafa digg woon nit ne ko fi fanan ci mhm. guddi gogi melna ni na la sa lay ci ñak bakkar do Cheikh sa warloo ko nit yi te seigne Touba moo ko digaloon Cheikh Mamadou fadil magal nako ñaari at mhm. ne rafatal nako Cheikh deug la jox ko sëñ Cheikh mu wéyal di ko màggal mu wote mu woote màggal gu màggal gu màggee dëgg la ah. deug la gu magal gu ndaw amu ci deug la lolou lamay xam di ah, diggante gaay <laughs> seigne bi seigne borom moo ne bis bi ma gën a fonk bi ma sama jàmm mu daje muy dajeeg sama borom sëñ Tuubaa bind ca wax ci wax ju rëy joojee wala mag maalam takkun taalam wasala lil xaq min laq ah sëñ bi loolu dafa rëy dëgg la ah la wax naa ni sax ne leen eh, hmm. al suñ borom moo bind ci alxuraan ne hmm. alama lisaan hmm. alama lisaan maalam yaxlam eh, déedéet eh, alama bil xalam ah te Rasulullaay bindut sëñ bi kon ku muy waxal dëgg la wala bu tukaat fay na nun wal xalam te sëñ sëriñ Tuubaa ne karaamat yi xatu yat yi dëgg la kon ku muy waxal waaw moom lay waxal de leer na kon ñi ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Maamoor looy tàggoo waaw euh, tàggatoo bi de mooy euh, ni sëñ bi waxee rek mhm. noo ngi santaat baax sëñ Mustafaa ci mhm. euh, émission bi mhm. ñuy wane ne daal Touba TV pare na. Mhm. ñun tàmbali nañ waajtaay màggal bi mhm. waaw dinañ def ay programme yu aw yoon mhm. def ay plateau yu jaar yoon dinañ def ay débat yu yoo xam ni day day day day ko maanaam du du bokk parce que impact économique bi màggal maa màggal Touba impact bi mu am ci senegal bëgg naa ku mel ni sëñ Jibi Ndaw ñu woo euh, classe gi ñu kenn ku ne dem xoolaat ci parce que tax may wax ne dama bëgg ñu ubbi benn serveur boo xamante ne kenn ku ne day day woote ci serveur bi. Mhm. daal di ne mën la diw. joxe numéro téléphone am. tem mhm. sàngam bëgg naa cee participer. Mhm. parce que rek waruñu rek Mame Mor laay Ablaye Diop mu sa Kane nekk ci tere yi rek. di di di kii ñu foog ni loolu la yoonu murid am. dama bëgg ñun waa Touba TV. ñu ubbi benn serveur. serveur bi. ku ci woote. ne tem sàngam de lu ma yitteel la. 18 jours la ñu am. jour bu nekk ñu teg benn tem. tem sàngam tem sàngam tem sàngam nan la ñuy def ba accident yi wàññeeku loolu war nañ cee mën a jàppale police dëgg la parce que màggal da ngay nekk di màggal di lekk sa ndawal màggal gi neex nga toogam yàgg ñu daal ne nga xool sa facebook wala nangam ñu ne mhm. nàngam yi nit soge nañ ci yoon wi ci ñu doon ñëw yooyu yooyu mhm. neexul te mën na mën na ñàkk mhm. bu ñu organiser woo mën na ñàkk yooyu yëpp kenn ku ci ne ne tem sàngam màcc naa ci mhm. loolu maa ngi ñaan ci barke Serigne tubaa nu ubbil lu benn serveur boo xam ne mhm. dañ koy publicité ku bëgg a barkeelu ci tem yi mhm. nga def ko et tamit koo xamante ne parce que du télé bi rek moo fi nekk réseaux sociaux yaa ngi fi kenn ku ne am nga loo mën a liggéeyal Serigne Touba ci màggal bi asalaamaaleykum wa rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, Serigne Mamor ci wax ju am solo ji euh, jërëjëf Cheikh Moustapha Dieng yow moom faaw ñu invité waat la ndax waaw euh, altine waaw ma ngoog. Euh, euh, alxames wala àllarba. àllarba suñ mbàkk bisu àllarba la. bisu la waaw. ñu ngi lay sant bu baax sëñ Moustapha Dieng xam-xam bu am solo la wax ji tegu ci aw yoon teey na te it incha allahu rabbi des na la invité waat ndax boroom xam-xam nga te nit moom bu waxee rek feeñ te wax ji li ci solo mooy wax joo xam ne bu génnee jariñ nit ñi ci saa si ñu mën a xam bu baax la ñu kii ñuy ñu ngi la ci sant bu baax a baax di ziyaare sëriñ bi di ko di ko di ko di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te wéral ko ndax moom mooy mooy mooy sunub sëriñ te lii lii lii lii mu ñuy may it ak oyofam. maa ngi leen di xamal ne ku baax ngi nii. ku mm-hmm. bëgg sëñ Touba Moustapha Kane ngi nii. Mm-hmm. Mm-hmm. man li ma ko jàppee mooy. daf noo ànd ba Côte d'Ivoire. nuy wër bare bi Serigne tubaay mais bi mu agsee Grand Bassam. ñu dem ba ci euh, gouvernance bi fi mu nekkoon. biñ duggee ci tunnel bi ñu indi woon sëriñ bi mhm. nga xamante ne boo siggee doo laal fii mu tàng jër mhm. sëriñ bi keroog waxaatutam ñun ba ngoon ba mhm. ngoon yi génn rek barke sëriñ ku bëgg sëriñ Tuubaa ngi nii boo wéeteeg moom guddi ngoon ko jot maag Moustapha dañ daan ñëw biir ba tëju ñëw suñu hôtel hôtelam ci sëriñ Tuubaa lañ ne ba deux heures du ñoo ko yëram dem dëgg la sëriñ Tuubaa la gëm dëgg la te duñ ko neexale kenn dëgg la dëgg la jërëjëf Mbàkke yàlla na fi yàgg te jërëjëf sëñ Mamoor euh, loolu mooy yoon ndax euh, sëñ Modou Moustapha ku muy sa maam sëñ seex jur la wax dëgg yàlla nii rek nga war mel nga waaw mooy mooy xam li nga doon doon ko loolu moom euh, Mbàkke ñu ngi lay ci sant bu baax di la ñaanal ndax lii nga ñu defal nii wan nga nañu euh, samay samay taalibe ngeen euh, bokk ngeen ci sama njaboot waaye nag samay xarit ngeen ndax lépp luñ bëgg ci yow rek ni ñu ko bëggee lañ ko amee te bëgg gi te yombul nak te bëgg gi weesuwul ñu waxtaan ak taalibe ci sëriñ bi yee gën leen xamal kan moy sëriñ bi ak nuñ wara def ba jariñu loolu wax dëgg yàlla ñu ngi la ci sant bu baax a baax euh, di sant nag sëñ Alaaji ci njàng mu am solo bi moom it nga xam ne Touba la jóge ñu wax ko ko tey jii la jóge Touba ñëw lii rek moo ko yëkkati su noppee day dem ni génn dem incha allahu rabbi wut oto dem loolu tamit euh, mooy bokk ci yëf yi ñu woola ñun ñëpp ñu bokk nekk fii loolu ñu ngi la ci sant bu baax a baax di sant ni ko sëñ bi waxee léegi Alaaji Mbàkke yu fay mi nga xam ni mooy borom kër gi nga xam ni dafa wax ni man bu ma bu ma bu ma bu ma xëyoon di gis photo sëñ bi ci télé bi rek ñu di ko wane doy na ma fii ba àddunay tukki télévision bi na nekk loo xamante ni na ci sëriñ bi di feeñ rek ak liggéeyub sëriñ bi kon loolu mooy pas-pas loolu mooy volonté loolu mooy bëgg sëriñ bi loolu mooy ak taalibe te moom bëgg na sëñ tubaa xeeti bëgg sëñ tubaa goo xamante ni ñi ko xam te di ko fréquenté di ñëw ci moom xam nañu loolu te sëriñ bi ki mujj a muy seigne mat jow paxa dani won mahabbatu abdul khadim wirdi wa hiya la daa sil harsi taxta wirdi bo demee ba ca ron ars sax la fay ngeen gi wirdi mooy bëgg seigne touba kon bëgg seigne touba mooy lepp te lola ne ci mom mom moy moy jëwrin ci lañu nampatal ci lañu yar mom lañuy xamal di ñu xamal ni luddul dul bi du dara lu ngeen bëgg wut leen ko ci biir sëriñ bi ndax mi ngi ci mom kon mom tamit ñu ngi koy ñaanal yalla bayiko fi wërul ko guddal afanam fanam Cheikh ball sambu mom mi ngi tok and ak ñun yow def naa loolu xam nga ci dara waaw lépp tamit di moom ñu ngi koy sant sëñ Jibril Ndaw ñu koy sant bu baax sëñ Pape Cheikh Bey mi ne woon ci caméra bi jàkkaarloog ñun sëñ Moustapha mi nekk ci réalisation bi ak sëñ Babacar di sant sëñ Mamor ku sonn ci émission bi la waaw am na yu bari yu ci xew yoo xam ni man xam naa ko te moom moo ko def te jëmmi sëñ Tuubaa rek tax ma di ko def te moom ñi ko xam-xam nañ ni ngànnaayam mooy lu mel ni lii ma doon wax rek mooy bëgg sëñ Tuubaa te boo ko bu xasee ne ci yow jàppal ni am nga lépp lépp lépp ci àddina waaw muy ku baax di sama wëllëre di ko ku neex a àndal ndax booy ànd ak moom dalay soññ ci bëgg sëñ bi te nit bi yaa ngi yaa ngi soññeeku ci bëgg sëñ bi rek na nga na nga gëm ni yaa ngi dox waaw kon moom tamit ñu ngi koy ñu ngi koy sant bu baax te du ko ñaanal bu ko defee yaa ñuy tëjal li nga xam ne mooy soxna Amina Saliou mi ngi ñuy topp soxna Khady Aj ñoom ñëpp ñu ngi ñuy topp ci li nga xam ne mooy émission bi ñu ngi leen sant di leen gërëm kon euh, sëñ Alaaji bu la neexee ah, wax ay kàddu door yëkkati li ngay tàggatu waaw. Mhm. Mhm. ne bisu Cheikh Moussa la. Mhm. Cheikh Moussa al daa produire ñaari jëmm yoo xam ne. xam naa du mun na ñàkk. ñoom dëgg la juróom benn bayit la dëgg la. sëriñ bi damaa wax séeréer bi waaw soos bi tamit mënta ñàkk waaw mënta ñàkk te te faaw mu tudd njàkk dëgg la waaw oh, dëgg la kon kon dama koy da ngeen may mbaa yaakaar ku waaw ma maya nees ko rek noonu noonu lay demee voilà hmm. sëñ Cheikh mi ngi tudd léegi waaw sama wasila dëgg la sama yaakaar tey ji ak boo liggéey daf maa yóbbante ci moom am dëgg la muy sëñ sëñ Daam Abdourahmane Mbàkke sëñ Mbàkke dina ci kon wax naa ne hmm. moom boo ko joxul loxo mi ngi koy dégg mi ngi koy dégg mi ngi koy dégg mi ngi ñuy topp mi ngi ñuy topp hmm. laa koy defee yow na doxoo kulu nas bii yaakaar ju dul tas da ngay yaakaar ku yaakaaru seexul xadim lañ fi yaakaar moo fi yaakaaru yaakaar ju dul tas da ngay yaakaar ku yaakaaru maami sëriñ Mbàkke Madina fi yaakaaru wayawma bis banu naa yowmal xiyaami ndaxam misaal mi feeñ na ci duniyaa kenn du muxtaaru moom képp mooy ki si lislaam ci ji jamono notal na lislaam ña doon bañ moo di xëxëru nun ñëpp santanu war ngir juddu giñ ci juddu maam yaag suñuy baay dañoo fekkoon ñu yaakaaru deret la tuurul dammul nit al kewul du kënoom ga mooy moo dàq fu jaaru maa yomb yomb dem am ndam lu sell di kaat lambar na yomb dem am ndam lu sell di kaat def leen ko mooy élément ni njiit laa ngi ku dem ba jeewal te jéeloo lenn jaari wu ñuy bokkam du seen mappandoo nii leen komam yaa ngi ku dem ba taw me dammoo diiwoo rafoo tadawoo yow sut nga ñëpp salaan ngeen ron gu gaa ngi mm-hmm. ma ñëw nag ci sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Serigne Mbacke Madina alaaji Cheikh maa lay siyaare Mbacke tey laaj sa jàmm yow mi jàmmal Mbacke jàmmal nga waa te jàmmal sa waa jël si ne faaxe Mbacke yaay sunu raw gannaaw si lii kon nag la Gaynde Fatma dem nay de ubbil nopp bi dégluwaat ma def na fa jaloore def ko taayif def ko tindoodi mbakki am na jaajëf tuubaa ki njaareem jàll darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma tuubaa ki njaareem darma bay daa itam xam nañu gaynde mbër ma xam ngam xamoon français jur na ay njariñ umpule nag mën naa waral nit sàkk mbañ moo indi ëb du ñaan bu lëg mose aloom na dem gërëm coy gaynde mi amul sëñ Mbàkke Madina ak Seexul Xadim mi arfan bi arfin benn laati yow mi sëñ Mbàkke Madina ak Seexul Xadim mi arfan bi benn laati yow mi dunduk Serigne Touba juróom-ñaar fukki at yu teg juróomi at la bul ati Serigne Mbàkke juróom-ñaar fukki at yu teg at xalaas waaru kat Serigne Touba sancoon ci Daaru Xuddoos sëñ Mbàkke yee salaat borom madina foofi tudd aw turam kookoo ko baax rek la ñuy teg ci kaam ndax ku ñëw fi moom di wax mu daat lay déglu ku jooy fi moom lorit mu daat lay wallu ku tànk yay metti mu toog mënula la dox mu raay ko xool ko dootu am liy metti sax man xam naa ku jaan matt ba mun la tisli mu teg ko mbaxanaam mu daal di tisli xam naa ku ñëw ñu naa kogor gor billahi sëñ mbàkke madina ni abdullahi sëñ mbàkke dina lorom wii kum kawal soo fa jógee faw nga am ay xéewal yàlla na seex taam bii taawu kër gi bi jeehi mustawal karim nañ tekki teema taxaw lu fii te ñaa nan njéggal ci barke mustawa ak ñu baax ñamu àndal yaa rabbana in waxindan jam fa ndeyu na barke seex mustawa garfotoyu ya rabbana in wakindan jam fandayu na barke Seex Mustafa garfutuyu amaduna tax fu i jik gëm na waray Seex Mustafa tax jama kañ na waray ahmaduna tax bu i jik na waray Seex Mustafa tax jama kañ na waray rasuluna te xoy rek ma togar Seex Mustafa xuway raatu mbakke togar bugguna yuqu cinci xifil manke gindof ci xaadim siw mbaa lay no xeloof no jig jam mab xel roog famin coodi xañ foqa tuuba anamin ino koyang in ngaakuf mbaa u njanja ñaamoob giñ giñ waa u njanja bu dalangel bu gawlangee nox fa sabar eetu yu ŋas jakas take ret fu kajar Cheikh Moustapha ilaa ji ngoola jiite inna na duniyaa nu bayta biontalinta Cheikh Moustapha illaa jingoo la jiita inna na duniyaa nu bayta biontalinta keebaalu naata musulu naata malaa'ikulu jiita koobi naata inti silinti bindima udanko mutaña finko mujjinaani banko jisa sinni jaata balooru barkata kambaanu baana kuytuloo barakata molbidi ŋoola dindi ŋoobi diina tuubaabi inti diinoobi diina le dibaa o kula ŋoo kañanta intilin baaba to kawsi naata tuubi tuubi sarifo ji ŋoola tuubi sarifo anta bintu ŋoola ci ñaaju saana minni loo baana tariya buri an tabibu dunna arsuno wa kursiyo dindi laalu si laalu jiita wa fulo wolu boyta arsuno wa kursiyo dindi laalu si laalu jiita wa fulo boyta bintu nooru saalu laata ridowano oljinaanu musulu laata beltul nooru bannaji saalu laata ridwaanu oljinaanu musulu laata bintu bannaji saalu laata ridwaanu oljinaanu musulu laata yawmal qiyamati naa la jiita malaikulu jiita Seex Bamba jiita moom barke waroon Tuuba ku la bëgg a. waaw ku la bëgg a jot. ku la bëgg a jot rek. waaw bu fekkee ne orange bi la. 77 mhm. la. 670. 06 96. bu fekkee ne tigo bi la. 76 mhm. la. 683. 35 64. 64 amoo promobile. amoo promobile moom dañ ko. naa jàpp non yow maa lay utal pour promobile yow. Mhm. barke sëñ Tuba xam naa sëñ bi defal na ñaan rek. kon na sëñ bi ñaan waaw. jërëjëf. rabbi ya maliki xalili walabi وبابي بالمصطفى مصطفى عليه تسليما